xool wala sax làmb làmb sax laay wax làmb ci boppam dafa xaw a fay te làmb bu fayee yéen ñi yéen a bokk ci ñi ko fay yéen bëri. non làmb làmb làmb fayul saison bi tijji na tey rek rek làmb am na Assane Ndiaye day tëgg non Fallou Ndiaye day tëgg tey jii hmm. làmb fayul de. Hmm. làmb mu ngi dox bu baax tey jii rek làmb am na saison bi tijji na. maanaam boo gisee ma wax la loolu. waaw li tax ma ne la làmb dafa fay parce que sa kalaas gii nii ak ak ñeneen ak ñeneen euh, dangay gis dama laa bëgg a tëgg ak mbër nga ne diw du ma bëreek moom ndax danoo bokk koñ wala danoo jege ñaantoo ay koñ wala diw mooy sama idol wala nangam wala nangam parce que ñu ngi koy gis sax ba ci mbëri Dakar yi du fii dong loo tax ma ne la làmb dafa fay te yéen mbër ñu bokk ñe ngeen ci ñu ko fay. man moom xanaa ñi ma dëkkal kase Zenga laa fi bàyyi Lambi Bawal Zenga fi bàyyi Reug Reug ak ku ma bokkal koj sama mbokk sax laa wax su ma ko tëggalee ma bëreeg moom. Hmm. waaw. Eh, lenn rek laay baj ñu bokk benn koñ bu ñuy waree di dem. Hmm. waaw. waaye bu ngeen bokkul koñ moom buñ la ko joxee nga bëreeg moom. la moo tax eh, te ñu laa jox doomu Mbàkke kon. waaw waaw ba léegi. waaye déranger moom bëgg naa ko moom. <laughs> Ah, daal moo lay daane. moo may daaneel man. Ah. doomu mbaaka tamit su ñëwee day baax man isaan bi nii daw ma daw ma kenn de. Mm-hmm. waaw ñàkk laay bañ daw ma kenn. amul kenn ku ma ragal fii. Mm-hmm. waaw. mën ngeen a jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 waa Mbusoobe ba ci biir Touba ndax seen doom moo toog fii di bébé Senga ñu gën koo xam ci Njoogu Mbay Euh, yéen ñi nga xamante ne ni yéen ay fansam yéen ay mbokkam yéen a nekk ci ginnaawam man ngeen a jaar ci 88 628 vingt 05 88 628 19 05 rajo Baol Média FM 88 point 5 euh, euh, Bébé Senga dafa am métier wala làmb rek mooy métier am. waaw Bébé Senga téyër la téyër la Simor Mbaye moo may jàngal métier. Hmm. waaw. nit ku di nit ku baax billaahi nit ku baax ku amul taalibe barke Seydunaa Muhammad di nit ku gore maa ngay nuyu di nuyu waa palaas bépp nuyoo maa ngay teg ci loxo Fallou Thiam waaw di nuyu làmp mbub coiffure waaw maa ngay nuyu bu baax sama grand bu baax la waaw ñoo bokk même centre daa ne am na ku nekk ci ligne bi 88 mbokk mi allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw maa ngi lay ziare. delloo ziar ku baax. man la Modou Samb Géwélu Xaadim Rasool. Modou Samb Géwélu Xaadim Rasool sa tur rëy na macha teenu maam Cheikh. teenu maam Cheikh. ah ah waa nga invité tey sama xol dafa sedd buy. ndeysaan bébé Senga mbër mu mag mi. waa ndaanaan la Faris la Noobu la Garmi la. ndeysaan loolu rëy na. li wër ci champion lépp mi ngi ci moom. ndeysaan dëgg la. jox ma Baye Ndiogou. acca bisimilah Ndiogou jëlal. waaw Modou. waaye Ndiogou sama xol set na. maa la gën a bég barke yonent bi. sama xel dal na sama yaakaar dolleeku na. kontaan naa si yow bu baax de. yow da ngay ndaanal barke Serigne Saliou. billaahi da ngaa baax rek yow. yow yow yow yow Mboy foo jox ñu xam ni ndaanal yëg si la. da baax da ngaa gore barke yonent bi. ngay ngay champion nag. <laughs> nit ñi nag kenn moomu leen li leen li ñu leen wan rek. la ñuy wax te loolu la ñuy gis yow. dëgg la yow da baax. dëgg te nit ñi liñ la gën a jàppee mooy njóogu da ngaa yaru. mun nga nekk champion pare nekk di wax yéen incorrect yi wala ngay doxee neneen. Mm-hmm. waaye yow yow yow noobul nga. ah ñu ñaan nag a ah, fi nga bëgg a àgg ci làmb ji yàlla na la fa suñ tubaab yóbbu. amiin amiin nga am ay ay ay drapeau bari. amiin la ko yéene. amiin lu commencé teelu maam Cheikh jàpp ñetti poto ñëpp a ngi toog di la bàyyi. Hmm. ñëpp a ngi lay déglu. émission bi tubaarkàlla macha allah yàlla yàlla def cat. amiin amiin. kontaan nañu. jërëjëf sëñ Modou. sa waay joxaat ma sa waay moom. waa sëñ Modou. sa waay nga xam ni. waaw. ah tey da ngaa laal laalaakil. dëgg la ndeysaan. ay bi sa nga nag ku ne. waaw. waaye ko mel ni Ndiogu Mbaye moom yombul. dëgg la waaju baax la de. ndax ndaanaan la damay wax am na solo waaye nag tey jii seen seen seen moodu rëcc na mën ngeen a def ni moom jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 képp koo xamante ne nii bëgg ngaa jokkoo ak euh, Ndiogou Mbaye rek mën ngaa jaar ci 88 628 19 05 ndax euh, ndaanaan lan fi invité tey doomi mbusoo bi la. waaye tamit doom doomi teenu maam Cheikh la waaye doomi sanc yi la am na ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum ku baax ñi ngi siyaare. ñu ngi siyaare bu baax si jàmm kooku tur weeg fooy wote. Alaaji Diop. Alaaji Diop Guy Sew. waaw. man de Guy Sew laa juddoo fa laa yaroo. Alaaji Diop dem na waa Guy Sew jaaraatal ci 88. vingt 628 19 05 88 628 19 05 alaaji ñu ngi lay xaaraat ak képp ku mel ni yow tey déglu rajo bi rek mbër mi nga xamante ne nii doomu Bawol la doomu Touba la ñun ñëpp ñu war koo jàppale indi ko fii ci rajo Bawol Média FM ah, sa diggante ak Senga ci nga ne woon ndax bi ma soxloo eh, soxlaa émission man ak moom mu ne ma damaa nekk Ndakaaru waaye dama lay jox benn numéro téléphone nga dégganteeg moom soo waxtaanee moom di nga ko invité avant may dégganteeg yow mu woo la téléphone expliqué la ba ñëw la indi la fii kon lii nii daanaka euh, du doonul sax man mais Senga mooy ki ko dox ba nga ñëw fii tey kon sa diggante boobu ngay wax ni moom rek nga fi bàyyi loolu am na solo mais euh, yow am jël nga ay drapeau wala. waaw man waaw jël naa ay drapeau waaw di profité di nuyu alaaji hmm. ñu doon ware sànq guy sew. ah guy sew waaw di nuyu waa guy sew yëpp. Hmm. dëgg la kër tonsam la fa nekk foofu. Mm-hmm. waaw bitig la fa yor. dëgg la waaw sama doomu lay la sama xarit. billaahi alaaji day ñëwaat na jaaraat ci 88. waaw Moodu 628 19 Moodu Samb tamit maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy nuyu. Mm-hmm. waaw di ko gërëm. Moodu waaw géwélu Sëñ Bàmba. ah moom de billaahi ndaanaan pire. ndeysaan barke yonent bi. dëgg la communicateur. Mm-hmm. barke Sëñ Bàmba. maa ngi koy nuyu lu bari di nuyu waa baaj ba yëpp. di nuyu Koso Kën Fuka maa ngi koy nuyu bu bër Koso Kën Fuka waaw da doon cant alxames bi passé. Hmm. waaw maa ngi koy nuyu di ko ziare bu vingt dëgg la waaw mën ngeen a jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 maa ngi nuyu euh, euh, Fallou Ndiaye waaye it euh, du ma fàtte Ndiouka Mbaye maa ngi koy siyaare bu baax a baax a baax. di ko jox wàccu waayam Baye Mor Mbaye maa leen di siyaare di siyaare rabkat seen rabal yi nekk ci sanc yëpp di leen jox seen wàccu waay sama nijaay Papa Ndiaye Balla waa caali gi waaw ngeen jaar dafa mel ne maa la doon laaj ne la comme que duggagoo ci arène yaa ngi ci mbappat mi mais jël nga ay drapeau Ndiogou waaw jël naa ay drapeau waaw li ma li ma jël say drapeau xaw ma nu mu billaahi bëri na li ma jël say drapeau xamoon mu toll. Hmm. waaw di ñaan yàlla mu yokk. Hmm. waaw maanaam instant yi daal kon licence bi daal nga yàkkamti mu génn ba nga mën a jëflante gars yi ci biir arène bi. licence bi fan si sax ñoo ma gën a yàkkamti mu génn fan si hmm. ñoo ko gën a soxla. waaw noonu ñoom wóolu nañ seen mbër bu baax xam na man maay kan. waaw seetaan nañ ma fu ne. te doy naa leen tamit te doyloo nañ ma. waaw maa ngi siyaare fan si yëpp fan si njoogu ma yëpp ñoom bëgguñu ma sax ngir làmboo waaw dañ ma bëgg te yàlla tax mhm. billaahi dëgg la waaw ah, Ndiogou kon am na fan si club bébé Senga waaw am naa fan si club waaw hmm. waaw fan si club am naa ko boo xam ne nii ñoom ñoo lay jàppale soo amee làmb ñoo xamante ne nii dañ lay wutal ay di la jëndal sa ay yenn ci ay billets di la luyeel ay kaar ak yooyu waaw ku mel ne Aliou Penda maa ngi koy nuyu. Aliou Penda waaw maa ngi koy nuyu bu baax. Hmm. ak Elas Rakam. Hmm, Elas sama Elas Gaynde Elas Gaynde Elas sama xarit sama doomu nday Elas. Hmm. maa ngi koy nuyu lu bari dëgg billaahi sama waay la te xeewuma barki yonent bi. waaw di nuyu fan si Ndiogu Mbaye yépp di nuyu waa teer maam Cheikh bàyyiwuma kenn billaahi su ma sañoon ñëpp laa tudd seen. am na ku nekk si leen bi ñu jógu salaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax ñu ngi ziar. ñu ngi jël ziar bu baax yow. tur beeg fooy woote. Habib Gueye Touba. Habib Gueye jël ko Ndiogu. waaw sëñ Habib. waaw sëñ Ndiogu. kii de sama jàngkat la moom. waaw dëgg la dëgg bi man ñëpp ma bëgg barki yonent bi. loolu yàlla def de maa ngi teewlu affaire bu baax macha allah. aw ma seen fayda. billaahi da ngaa baax da ngaa baax da ngaa baax. billaahi bi ba léegi ay ndaanaan rek ñoo fi woote. yàlla na sa jàmm yàgg yaa mel noonu. barki yonent bi. yàlla na jàmm yàgg yor naa baax. billaahi yéen ma gën de. moo tax loo am lu mu tuur tuur doon ci dugal suñu loxo. jërëjëf. waaye yàlla na la si ndax defal jàmm rek jërëjëf jërëjëf amiin amiin nekk foofa ca Touba waaye ngeen mën a def ni moom jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 maa ngi nuyu waa Daaru Salaam. Euh, Rama maa ngi lay siyaar baax yaa Asu Mbaay waa kër gi nee na maa ngi leen di bëgg bu baax a baax maa ngi nuyu Asu Jeen ak euh, Ndey ñi ak Awa di leen ñaanal jàmm ak tawféex waaye duma fàtte benn yoon seeni jaañ maa lay siyaar bu baax eh, jox la sa wàccuwaay nuyu ma faat mu ndaw seen siidi euh, njóogu issan yi ni yow fan nga teg sa bët fan nga bëgg a àgg waaw bala maa ñëw si loolu sëñ Abib maa koy ziyaare bu baax hmm. waaw nit ku baax di nuyu waa gaar yépp yëpp bàyyiwuma kenn di profité di nuyu waa marché okaas mm-hmm. waaw lii Mouhamed moo ma a ñawal mm-hmm. Mouhamed Couture moo ma a ñawal jox ma ko jox ma ko benn dërëm billaahi barki yonent bi suñu abib daaw cant yu mag la ma tudde billaahi wallaahi te mënoon na kaa tudde kaneen mm-hmm. xoolul xaalis xoolul dara billaahi te dafa am cant la euh, lavin la bi ñu jëm nii maa ngi si woo ñëpp waaw loolu moom da ngay fay publicité bala ngaa génn fii loolu moom da ngay fay publicité bala ngaa génn fii. waaw ñu ñëw ci li ma la laajoon. waaw su ko su ko su ko jaree sax ñu fay ko sëñ Habib jaral na ma ko barki mhm. yonent bi. incha allah billaahi dafa yaru. Mhm. dafa am taalibi. Mhm. te moom mag fopp billaahi. nit ku baax la. dëgg la li ma laajoon ci ci ci làmb ji ma ne la fan nga nekk ak fan nga bëgg àgg ci làmb ndax. borom bitigu mbagg bu nekk bëgg na magasin mais tamit yow noo ko bëgg a doxalee. làmb ji roi des arènes sax xeeb naa ko billaahi. barke Seydou roi des arènes moom la ñëpp di wër di. nga xeeb ko yow man xeeb naa ko man roi des arènes xeeb naa ko. Mhm. billaahi man na licence bi génn rek ma wane sama bopp. Hmm. wax ñi daal matatu ko licence bi daal laa xaar mu génn ma ma wan leen kan mooy bébé Senga kan mooy Njoogu Mbay hmm. waaw yow ban daanaan nga daan ci mbapat mbapat bëri na limal ma ci ma dégg daan naa booy booy bawal waaw ku si mel ni caatu caatu kii benn benn dëkk àll la foofu booy hmm. boobu day toj foofu hmm. ku fay ngemb moo la man hmm. barki Seydunaa Mohamed man sama koñ dama daan dama daan tëdd ba guddi ñu ma ni ma am na ko fii ñëwul di di booy man la ñuy woo. billaahi nga dem daan ko. barke Seydina Muhammad hmm. man ab amul képp kuy taxaw sama kanam ma lay bàyyi xel déedéet amul. Hmm. waaw. daan ay champion ay ay ndaanaan. Hmm. man dama lay daan ba pare sax fàtte la du ma la sax bàyyi xel. jàpp ma ne sax ay ndaanaan laa daan. commencé gu ma de. billaahi da ngay doog a door waaw ngeen jaar ci 88 628 vingt 05 88 628 19 05 yéen a ngi ci émission Lambi Baol nekk fii ci rajo Baol Média FM ngeen koy am chaque dimanche 11h euh, ba 13h incha allahu rabbi euh, ñu dalal fi tey Ndiogou mbay ñu gën koo xam ci Bébé Senga waaye tamit euh, ngeen mën a jaar ci 88 628 19 05 88 628. 19 05 Bébé Senga nga ne yaa ngi ci métier métier mi nan nga koy boole ak làmb ji. waa loolu loolu du problème Siteu téyeer la. Hmm. Siteu xoolal fi mu toll si làmb téyeer la te ku toogoon tey jii nii ne ko ñawal ma yére mu mu toog ñawal la ko. Hmm. te moo ko boole ak làmb ji. Hmm. waaw te xale bu ndaw la. loolu boole ko du problème mën naa ko boole ak beneen métier sax bu dul làmb. mais làmb dafa xaw a fiir moo ko làmb daanaka artiste la rek mooy moo métier am tëgg ñooyam danoo xaw a fiir duñ duñ duñ maye dara duñ boole dara ak leneen. waaw làmb lu mu laaj rek ñu def ko incha allah rabbi. waaw bu ci dem rek sa moroom resté quoi. waaw lu ci laaj rek ñu def ko. Mhm. waaw. man ngeen a jaar ci vingt 88 628 19 05 88 628 19 05. Euh, ndaanaan lan fi dalal tey waaye doomi mbusoo bi la doo doomi teenu maam Cheikh waaye tamit doomi euh, Touba marché Ocass kullu koo xamante ne ni yaa ngi bége làmb wala ngay bége mbër mi ñu fi dalal muy Bébé Senga gën koo xam ci Njoogu Mbay mën ngaa jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 Mourou Kane Ndiaye Couture super couture ah maa ngi lay bége bu baax a baax di la siyaare Galas Guèye galas mbuub waa marché santi yi muur kan jaw maa ngi leen di siyaara bu baax muur Diop élément sin muntaxa maa ngi lay siyaara bu baax a baax a baax a baax euh, euh, yow bi nga dalee bëri ak léegi ndax euh, am nga ci benn comme ça loo xamante ne nii daal làmb may na la ko comme loo xamante ne nii daal lu lu rëy la loo xamante ne nii làmb may na la ko nga xamante ne nii da ngay toog sax di ko fàttaliku sa xol di neex sa xol di feex wala làmb mayeegu la dara loo xamante ne nii daal yaa ngi ci yëg sa bopp. waaw làmb nag wax dëgg yàlla bañ si duggee ba léegi mayeeguñu lenn loo xamante ne nii amal nañ ko suñu bopp waaye am nañ si nit ñi. Mm-hmm. waaw am nañ si nit ñi te nit ñi ku leen am ñàkkoo dara. Mm-hmm. waaw nit ñi ñooy lépp ku leen am ñaaxoo dara mm-hmm. waaw ay drapeau am naa ko si mm-hmm. waaw te li si kanam rawati bat mm-hmm. dra dra yooyu noonu euh, drapeau yi kese la tis yi kese la wala day day ànd xaalis comme làmb yi moom nan lay demee làmb moom day ànd ak comme ça boo jëlee drapeau day ànd xaalis wala drapo dong lay doon yàlla dafa dogal ne man fépp fu may dem rek di dafa bëre mbapat damay ànd ak damay ànd am na ku nekk si ligne bi Ndiogou. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax ñu ngi siyaare. waaw man Alaaji Diop maa ñëwaat. Alaaji bisimilah. waaw guy sew. ah Alaaji guy sew Ndiogou jël ko Alaaji. waaw di siyaare sama doom day Ndiogou. waaw Alaaji maa lay delloo siyaar bu wér. di kon émission bi di ko rafetlu bu baax a baax. bilaay kontaan naa si yow trop. non yow sama waaye nga ñëw far. bilaay. xamante ni dina war a dugg te war a jàppale la ci. billaahi jërëjëf. bëru nag. waaw bawal gépp di ko bàyyi hmm, dëgg la. waaw fan bi man maay première fan si club sama doom day. dëgg la. wallaay di ko ñaanal jàmm nag. Hmm. waaj muy baax baax si man yàlla xam ne ni tey dagg yiteem yëpp di ñëw di ma seeti sama place. Hmm. barke alxuraan mu amu yëg-yëg nit. rawatina ci man nag bëgg ma. wallaay may da ko ñaanal rek. suñu ànd mu gën a yàgg. amiin amiin amiin. yàlla bàyyi ko lépp lu muy yóotu ci làmb rek. amiin amiin amiin. mu fekk ci ko. amiin amiin. bàyyi ko bëgg yàgg bëgg làmb njoogu xoolal bu soloon jesneer fii ngoon nga ne làmb am na wala kaa ñu bëri balaa yàlla xam ne noonu lay bëri ak jesneer hmm. muy lu mu bëgg quoi loo xamante ni ci xol bi la nekk. dëgg la. mais da ko si ñaanal jàmm. Hmm. di champion nag barke alxuraan di bàyyi faal. Hmm. li mu bëgg lépp yàlla na ko suñu borom defal. mais alaaji. Hmm. njoogu de dafa am benn mbër mu mu mu cité fii Mbàkke ne moom la soxla pour ñu tëggal ko làmb ji est-ce que ah. loolu yéen seen xol feex na ci. yàlla xam na ni d'accord naa ci. te bu hmm. tëddoon ma njoogu de yow comment ko ci delloo xamaa ci ce que sa waay ko. Ah, man fan ñun li ma yor man dama ko wóol. ah. billaahi. njoogu mii gëj naa bëri de ñetti at. <laughs> mi ne loolu du ci dara. ma ne moo man de njoogu mii. Ah, du du delloo yàlla xam ne damaa la wax loolu. waaw comme que moom nag déposé na licence. Hmm? te licence bi génnagul te saison bi daanaka léegi mu tijji mën naa ne sax tijji na. Hmm. ndax euh, gars yi ñu ngi euh, taxawal ay affiches yu am solo. Hmm. Euh, ñun ñëpp danoo war a booloo yéen tamit ngeen booloo waa fans clubam. ngeen ngeen ngeen ngeen teg ko ci yoon képp koo xamante ni yaa ko gën a gudd loxo. ngeen man koo dimbale ba licence bi gaaw génn ndax njoogu mii kat yaramam eh. fi mu ne nii mu ngi xasan. incha allah loolu lépp moom dañ tax ay waxtaan lay doon rek. Hmm. gën a incha allah moom ndax ndax ndax fi mu ne nii nee na pare na pour pour pour pour dem fële Jurbel. Hmm. da da daje fa ak sa waay ñu ñu ñu laale ñoom ñaar. Hmm. mais nag maa ngi siyaare waa guy sew gépp ndax man. guy guy sew laa yaroo ñu ah. waaw man guy sew laa yaroo. waaw guy sew moom bi ñu ngi lay bëgg. waaw fa laa yaroo alaaji dem na ngeen mën a def ni alaaji jaar ci vingt sero 88 628 19 05 88 628 19 05 maa ngi siyaare bu baax mbay laam maa ngi siyaare laay bajaan waaye tamit daba nekk suñu wetu kër maa ngi koy siyaare jeegu Touré nogoy lay maa ngi lay bëgg bu baax a baax a baax séeri seexu naa di la jox sa wàccu waay yaama ndaw waa koñ ba yëpp maa ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax Fallou Ndiaye maa ngi lay bëggee bàyyi bàcc Fallou Ndiaye Doos Fallou Aliéné yéen ñëpp maa leen di siyaare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay njóogu sa diggante ak doomu aadama yi ni ñu la bëgg nii ay kilifa rek booba léegi ñoo fi woote lan moo ko waral. waa loolu moom yàlla ko def billaahi hmm. yàlla moo ma dugal si xool doomu aadama yi hmm. man xawma sax bak Seydunaa Muhammad hmm. yenn saa damay dem fu sori billaahi wallaahi damay dox rek ñu ni ma Ndiogou Mbaye damay tiit sax sama bopp barke Seydina Mohamed. Mm-hmm. jàppe wu ko dara nag. Mm-hmm. waaw. dëgg la waaw. te doomu aadama yi tamit lu la bëgg-bëgg. lu mm-hmm. tee tamit da ngay wàcc sa bopp mën a ànd ak ñoom. waaw. alaaji mi génn léegi maa ngi koy ziaraat baax sama doom nay bu ma bëgg billaahi. la mais Ndiogou yow su ma de su ma la déggee parce que. Euh, dama lay dégg nga naan bébé Senga ñu gën koo xam ci Ndiogou mbay dama yaakaar ne bébé Senga daal da ngaa a dajeek moom rek ba tax nga jël ko nga tuddee ko sa bopp ndax moom champion la te xam naa ne mooy loolu moo tax parce que Ndiogou gi moom la ñun ñi gën a xam est-ce daw bébé Senga kële mu mag ba tax nga ne nga indi ko sa rek ne bébé Senga. man Senga moo ma yar kooku mënu ma bëreek moom. Hmm. barke Sëñ Bamba kooku moo yar si kanamam laa yaroo. billaahi te moom moo tax mu bëgg laamu tamit. du kenn du Balla Gaye du Modou Lo moo tax ma bëgg làmb hmm. waaw moo tax ma bëgg làmb moo tax may suivre làmb tamit hmm. moo tax tamit may delloo góorgóorlu si làmb di yokk jom si làmb hmm. damay conseil chaque jour billaahi barke Seydina Mohamed aw awma fayam ndax nit ki moom lu mu bëgg rek nga ko ci jàppale rek waaw du def lu dul gën a jàpp rek waaw ndax nit amul lu dul bëgg-bëggam waaw sa waa place ñu ngi leen di xaar mel na ni am na ku nekk ci ligne bi 88 la 628 19 05 88 628 19 05 mbokk salaamaaleykum. maaleykum ñu ngi jaar. waaw Sine Balla Ndiaye. allo. allo waaw. kooku ngi si Sine Balla. delloo naa la ziar mbaa yéen si jàmm. sant Serigne Touba Cheikh Ibrahima Fall amoo jàmm. alhamdulilah sant bu wér. waa Sangue Darou Salam ñëpp a ngi teewlu émission bi. ndeysaan jërëjëf. ñëpp a ngi lay déglu ñëpp a ngi lay bégee ñëpp lay ñaanal maanaam li ngay yóotu ci émission bi yàlla na ko ko ba borom sama mbër. Mhm. muy Bébé Sanga. Mhm. suñu borom def moom nekk fi mu jël njóogu mbay moomu nga xam ne mooy léppam. mu boole la ak moom. suñu borom def mu ñëw taxawaay ko taxawaay boo xam ne mi ngi mel ni Sanga mi ngi teew. Mhm, sañ ci Daaru Salaam ñëpp ñu ngi koy rafetlu. Mhm. barke Cheikh Modou Moussa Fall man de sama xol dafa neex. ndax Senga dafa ñëw ba ci man na ma Balla Ndiaye mu ne ah mu ne man sañ ci Daaru Salaam yaay sama géwél. Mhm. wóor na maam Cheikh Ibrahima ma fekk di ma tiitaroo. man nga géwél de barke yonent bi nii ma koy bégee di ko sagoo. ndax mhm. ñun waa sañ ci Daaru Salaam dañoo amut lenn kenn ku ñu war a mën a bégee ku dul Senga ndax bay ci sama tànk kon lu commencé ten maam Cheikh ñetti poto. ba mhm. ñu koy wàcc sañ Daal Saam ba Touba Fall. Mhm. Senga moo fi ne nañ ne moo fi mbër nañ ko teg loxo. Mhm, benn ci yow mi nga xamante ne nii yàlla def na yow la yàlla def nga doon ndaw loo xamante nii yaa ngi soutenir bépp jeunesse. moo xam ci lu mën di yëngu muy artiste muy footballkat bi muy waykat bi muy taasukat bi muy tëggkat bi ak ku man di doon rek yaa ngi koy dimbale ci lu mën di doon. démb bi yow tafaala woon tey yaa ngi Senga. kon lii doomu aadama it ñu ngi ku nekk dafa tiim na mais réseau bi moo amoon ay bang bang affaire yooyu noonu. Mhm, dëgg mais maa mhm. koy bëgg wér wér. mi ngi mel ni man sama mbër la ngi nii. <laughs> Balla xam naa ko bu baax tëggukatu xëy na waaw. noonu la demee yow Ndiogou man mii xam naa la bu baax. dama koy jàppal jéembe barke rëdd bi. <laughs> ndeysaan noonu la waaw waaw dama yëngu si ngéwél gi de. jërëjëf sa Balla Ndiaye moom sunu sunu nijaay la sunu sunu xarit la sunu lépp la ñu ngi koy siyaare bu baax a baax mu nekk foofa doon tëggkatab xiinu baay Fall ñu ngi koy siyaare moo waa groupam yëpp ku mel ne Ibou euh, Ndefleng Séeri Ndey maa ngi koy siyaare bu baax waaye du ma fàtte Baye Demba Ndiaye ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax a baax di siyaare waa sëriñ Serigne Modou Moustapha Fatikan Serigne Modou Fall ñu ngi lay siyaare sin Seex Xadi waaye maam Seex Fall góor gu baax ñu ngi koy bëggee bu baax di siyaare góor Taal ñu ngi siyaare Siise Ndooy ñu ngi koy bëggee lu bëree bëri Tafa Caam borom kurusu njalambaan yi ñu ngi lay siyaare bu baax a baax a baax a baax Moustapha Basiru ñu ngi mi ngi lay siyaare 88 628 19 05 mbokk allo allo allo ku baax asalaamaaleykum Modou Bale waaw ñu ngi siyaare man na sa awas njuuko ah, yow de moom dama kontaan ci dugg moom maa la gën a kontaan ñoo ngi lay ziare bu baax. delloo ziar bu wér a wér a wér a wér. di la ñaanal ca kaw ca kanam. allahumma amiin yaa rabbi. yow boo toogoo foofu dina neex ndax kenn jëppiwu la. ndeysaan jërëjëf. da ngaa baax mën na teel la foo ma fekk defal ma teraanga ju rëy. ndeysaan jërëjëf. bëgg ma bëgg samay doom bëgg ñëpp sax. ndeysaan dëgg la. waa caal gi nag ñëpp a ngi lay dégg. ku loo ku la wóor ñëpp am nañu la woon rabbkat yi seen rabal ñu ngi ziare ñëpp. ñëpp Baye Mor Mbaye ñoom Baye Ngañ Baye Bàcc Fallou Ndiaye ñoom ñëpp ngi lay teewlu. ndeysaan kontaan naa bu baax. di la ñaanal ca kaw ca kanam. yaa rabbi allahumma amiin. fa nga bëgg a yegg yaa ko xam yal na fa suñu borom àggale. amiin amiin allahumma amiin. nga yaatu nag la maam jaara ñoom ñëpp. maam jaara maa ngi koy siyaare bu baax ak suñu aaw boobu Serigne Fallou njaay <laughs> waaw waaw ñu ngi koy siyaare bu baax. <laughs> ñu ngi koy siyaare bu baax baax maa sama xarit bi maam <laughs> ko maa ngi koy siyaare bu ak Sine Saliou. waaw kontaan nañ bu wér a wér a wér. baax na jërëjëf. jërëjëfati euh, kooku Njuuka Mbay la sunu yaay booy la nekk foofa ca Sanjia moom nag yàlla dafa dogal moom Baol Média rek euh, lay déglu saa su xëyee suba ba ngoon jot ak kuy mën di def émission nag Baol Média dong lay déglu fa la damm ondam ñu ngi koy siyaare baax a baax maire Njuuka Mbay di siyaare Baay Ngañ waa kër gi yëpp ñu ngi leen di siyaare maam jaara di leen ñaanal jàmm ak tawféex dem ba caali mbay jaañ fekk fa mbay jaañ ak euh, mbay sàmb siyaare leen ak boo yafay ràbb yëpp ñoom soose Eliman Ndiaye ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax ngeen mën a jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 waaye it ba léegi ñu ngi xaar waa Mbusoobe ak waa teenu maam Seex euh, mbokk yi euh, Njoogu Mbay ñu ngi leen di xaar bu baax a baax ak waa palaasam ku ci mel ni patron ak ak ak xale palaas ba yëpp ñu ngi leen di xaar ci 88 628 19 05 Tafa Caam boroom kurus Njalembaan yi maa ngi lay siyaare bu baax allo am na mel ni am na ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum. ku baax ñu ngi siyaare bu wér. xab su keemaan borom marché ogas alhamdulilah mbaa lépp tawfeex sama crédit bëriwul mais damaa bëgg ngeen xam ne ñëpp ngi leen bàyyi xel jërëjëf kontaan nan ndeysaan kontaan nan de jërëjëf xabsu keemaan na nga ñu nuyul fàllu senegal waaye siyaareel ñu Amath Samb nekk foofu ci marché Ocass waaye Boy Colobane maa ngi koy siyaare foofu ca marché Ocass di ko ñaanal jàmm ak tawféex di siyaare baay Laat Laat Met Seri ñi ngi koy siyaare bu baax di siyaare Gora Mboup wala Gora Fall ñu ngi koy bëgge bu baax a baax a baax di la ñaanal jàmm ak ngeen mën a def ni ñoom jaar ci 88 628 19 05 mel ni am na mbokk mu nekk ci ligne bi salaamaaleykum. sëñ waaw ku baax kooku. Modou Kan super couture sant ñoo ngi lay bëgge mbaa si jàmm. ñu ngi lay bëgge lu bëree bëri. waaw boobu ba léegi ñu ngi teewlu émission bi. ndeysaan jërëjëf. ñu ngi ñu ngi jaar yoon dem ba léegi. Hmm. ñu koy tuub bu baax dem bëggoon nañoo dugg mais affaire yi xatoon lool. dëgg la dëgg la ak réseau bi. mais ñu ngi koy rafetlu mi ngi jaar yoon. dëgg la dëgg la. di la ñaanal ci kaw kanam rek ci lu baax. super couture jërëjëf. di la wax ne fi nga teg ci tànk foofu la ko quoi. jërëjëf jërëjëf. incha Sénégal mbër moom nga dalal ñu ngi koy. waaw Ndiogou Ndiogou Mbaye mi ngi lay siyaar. waaw Ndiogou Mbaye waaw li kii li la wax noonu la demee quoi ñu ngi koy bëggee. Hmm, hmm, noonu la demee di siyaar Balla Ndiaye sama grand frère. dëgg la. di siyaar Xabsu Kéemaan mu jënd sànq maa ngi bëgg daal. Xabsu waaw ne ko nay jënd crédit bu doy nag bëgg na lu yomb trop. dinaa ko wax di ko may sama waa place waaw. waaw ana ñoom Galas. waaw ñoom Galas ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi teew émission bi xam naa dinañ dugg ci kanam. waaw ak Galas Mbuub Galas Guèye. waaw maa ngi koy may Galas bi di ko may Sidi sama soose bi Casamance bi. waaw Sidi. di ko may Fallou Kaja Fallou Ndar. Fallou Ndar waaw. waaw di ko may Aada sa Dieye. waaw Maysa moom ñoom ñëpp ñu ngi di ko may Maysa. Mhm. di ko may waa super couture yëpp daal. ndeysaan kontaan nan. kontaan nan bu baax a baax Mourou Kane Ndiaye. jërëjëf jërëjëf Mourou Kane ñu ngi lay siyaare super di siyaare waa marché ci yëpp marché Maam Jaara foofu ci Sanji di leen bëggee waaye tamit ngeen mën a def ni ñoom jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 yéen a ngi fi ànd ak euh, mbër mu mag mbëru Bawal mbëru Santhia waaye tamit mbëru teenu maam Cheikh mbëru Aresine Fallo ba ci are maam Diarra Aresine Sidi ñëpp ñu ngi bëggee ki nga xamante ne ni mooy Ndiogu Mbaye bébé Senga mais Ndiogu Mbaye làmb bëri na ay jafe-jafeñ de maam yow doo toog ba mu yàgg ngay xalaat comme ay liggéeyante beeg fasante beeg ficcante beeg yooyu. waaw làmb moom ku siy dugg rek xam nga ko bu baax waaw loolu lépp ñoo koy bàyyi xel. Mm-hmm. waaw am na ay maara ku si mel ni Saatuba. Mm-hmm. waaw ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm kooku day sonn si ñun. Mm-hmm. kooku suñu amul combat sax dañuy jox nit ñi sangul. waxuma la nag ñu am combat war a bëree ji. waaw ñun daal pare nañ démb tey soog a ñëw. pare nañ lépp. waaw licence bi daal moo ñu téye rek. waaw. kon yàlla na licence bi gaaw ñëw ak jàmm ak salaam ndax sawaay yaram mi ngi xasan te bëgg naa bëri ndax wax dëgg si yàlla nag euh, waaye tamit euh, ñi ngi ñaan autorité yi nga xamante ne nii ñoo nekk fii si Mbàkke Bawal ñu gaaw defar sunu stade bi nga xamante ne nii sunu doom yi ci lañ war a bëri ci lañ war a fubal ci lañ war a def lépp parce que euh, ab dëkk moom li ko gën di man di doxal loolu noonu ci la bokk muy sport sport nag bàyyiwul dara sport moom lépp mi ngi ci biir kon ñi ngi ñaan rek stade bi nga xamante ne nii moom la ñuy defar mu gaaw pare si jàmm salaam te nu fekke ko ñun ñépp te tal ko euh, Ndiogou mbay ndax euh, làmb yaa ngi toog bam yàgg ngay réccu ne waroon nga cee dugg wala wala déet. no làmb man de aw ma lu ma ci réccu waaw ndax sama bëgg-bëgg la te yàlla am na lu ma ci jërale hmm. waaw jiitu ma sama benn moroomu góor hmm. waaw. làmb daal amul len lu ma si réccu hmm. waaw yeex see dugg daal laa réccu hmm. waaw ak yéex a taxaw ci déposé licence bi ak affaire yooyu noonu hmm. waaw te ñu bu baax waaw dëgg la am soxna non Ndiogou Mbaye amagul soxna soxna teel ci kanam waaw wala yow roi de Sarène mooy sa soxna fi mu ne nii <laughs> non soxna moom dina ko wit incha allah ah. waaw ndax si làmb jëla bokk waaw ndax góor bala moom mat góor dëgg moom soxna waaw. Hmm. waaw soxnaam bëgg nañ ko moom. 88 628 19 05 salaamaaleykum. Aliou Sow ñu ngi waaw sant yàlla. ñi jaar baax na xéwal yi. alhamdulilah. na nga tëj fexe. sant yàlla bu wér. Ndiogou Mbaye lañ soxla Ndiogou Mbaye. Ndiogou mi lay dégg bisimilah Ndiogou. maa ngi lay nekk maa ngi koy jaar baax a baax a baax. waaw Sine Ndiogo maa ngi lay baax de. waaw doo li ziar bu baax. boobu ba maa ngi bëgg a dugg waaye nekkat benn dëj kër yi di xaw fee jafe lool. wax nga dëgg wax nga dëgg. baa yaa ngi baax. <laughs> sant bu wér kay. kontaan nañ bu baax de mosoo bépp kontaan nañ yàlla waaw jërëjëf jërëjëf sant bu baax baax a baax a baax a a ngi sant ak gërëm ñoom Fall Mbaye boobu léegi ñëpp a ngi bëgg ñëpp a ngi teewlu wax nga dëgg wax a ngi teewlu wax a baax a baax di ñaanal ay xéwal yu gànc bak ci waa amin kontaan bu baax yàlla yokk fan yi dëgëral cër ji ba ak Seex Xadim amiin amiin amiin amiin ndaw lu jàmbaare nga njugu mooy ku jàmbaare la ku nungoo liggéey ku gëmboom la ku bëgg mbokkam yéen a ñëpp jàmm mooy njóogu may moomu ku gëm li muy def kon ñu ngi sant bu baax di kontaan di ko ñaanal yàlla def fan gudd ànd ko wér kontaan nañu baax wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax baax di ko ñaanal fu mu bëggee yàlla na fa yegg ñëpp gars yi kenn ñëpp ngi bëgg a woote ñëpp boobale ñëpp ngi teewlu ñëpp ngi koy teewlu di ko ñaanal waa ku baax waaw waaye moom am na mbër mu mag moom Siteu fii Mbàkke de ne moom moom moom koo ko tànnal rek mu ne saa bëggut bëggul moo koo koo bëgg di sax. déranger déranger da la bëgg mu déranger ko. Ndiogou Mbaye comme koo ko jox ñime na ko. ah saa yi de déranger da da di dóor ngeen daanu de. ñun kenn duñ dooñu daanu kenn mësuñoo dooñu daanu. ah. jàmbaar lañ Ndiogou. ah. fu mu teg ba dem romb na kooku. mbaaru faale wu leen déranger. déedéet faale wuñ ko kenn mënoo déranger ah, ñun. promoteur yi de ñu ngi leen di dégg waaye bokki déranger yi ñu ngi dégg. na ko lenn comme ñu tàntal ñemee ko regalun kenn ku ne ñemee ko ñemee nañ ko. Ah. waaw waaw ñu ngi lay seeral ci kooku nag kooku nga dalal noonu. waaw. ku jàmbaar ku gëm la. ndeysaan. man mii la am na ñuy liggéey waaye sama sama doom bàjjen ak sama xarit sama lépp la. dëgg la. ku baax ngi noonu ñëpp ñëpp sanc yi boo fi ñëw di ko laaj ci ñëpp benn benn bopp bi lañ. dëgg la. lépp la ndax dañ lay ku jàmbaar ku gëm boom la ku baax la. dëgg la ku ku gëm li muy def la. dëgg la na leen caaxaani ko lu nañu gëm na gëm na ko comme gëm-gëm la dëgg la ndeysaan ñu ngi koy ñaanal su mbëgg yàlla yegg ko ci bàgg seexul xaalis tax ñëpp nga koy nga koy teewlu dëgg la dëgg la suñu xool seet na jërëjëf jërëjëf dégg nga ndeysaan kontaan nañ jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëfati kontaan nañ ci moom bu baax a baax ngeen mën a def ni ñoom jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 tur ba sax nu mu tuddati sax sa waa ji. sëñ Mor Mbaye. sëñ Mor mooy sa patron de. mooy sama patron waaw di bu baax. ndeysaan loolu am na solo ñu ngi koy siyaare sëñ Mor Mbaye di siyaare waa place bi yëpp. di ñaanal jàmm ak tawféex moom moo ñëw bii xanaa. waaw bii ah, Ahmed moo ko ñëw <laughs> ah, ñu ngi koy siyaare bu baax démb ma woo si ko. ndeysaan loolu am na solo kooku da laa bëgg. ngeen mën a jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 yéen a ngi si rajo Baol Média FM maa ngi nuyu màgget Gueye bu baax sama xarit di ko siyaare Aymirou Gueye maa ngi lay bëgg bu baax a baax di siyaare euh, Dame Gueye di leen bëgg di leen ñaanal jàmm ak tawfiq Abdou Khadir Tine maa ngi lay bëgg lu bëree bëree bari Nogay lay maa ngi lay siyaare jeegu euh, maa ngi lay siyaare ñu ngi ñu ngi teewlu émission bi euh, Ndiogu ñu ngi woon ci wàllam soxna yooyu nga ne bala ngaa mën a doon góor yàlla dëgg dangaa am soxna mais est-ce que tamit mbër ak fii nga toll nii fi mu nekk nii nekk nekk nii est-ce que doo bàyyi bàyyi ba ca kanama kanama kanama kanama kanam ba licence bi génn nga mën a dugg ci arène bi jëflante gaa yi mbër yu mag yi door a takk soxna. waaw waaw ba léegi rek man daal lépp lu mu laaj rek. waaw maa ngi si. Mhm. waaw. dëgg la. am na am na maa ngi nuyu Modou Gueye waaw moom laa àndal Modou Gueye ah, waaw sama waa ji waaw maa ngi koy nuyu bu baax. Ah. waaw di sama grand. dëgg la waaw. moom la daa daa yaru daa dal. billaahi dëgg la manqué yu bëri mhm. lépp lu may def rek moo ma ciy conseillé waaw manqué nuyu bëri di nuyuwaat si Mor Mbaye mhm. waaw sama patron maa ngi koy nuyu bu baax di ko mhm. sant di ko gërëm waaw di ko baax billaahi barke sëñ Bàmba damaa yéene wallaahi xasib lépp lu ma rek yéene na ma ko di nuyu waa marché bépp góor a téyeer bàyyiwuma kenn fal mbay maa ngi koy nuyu bëri maa ngi koy nuyu Lamp Mbuub maa ngi nuyu ñoom ñëpp di nuyu sama kër sama waa kër nijaay hmm. waaw si moor maa ngi nuyu soxnaam sama mag nday ñag maa ngi koy nuyu lu bëri hmm. waaw di nuyu waa kër gépp di nuyu yaayam yaay caama hmm. waaw di ñaanal nijaay baay baa ci yàlla yàlla xare àjjana di ñaanal képp ku tëdd si kaw suuf rek yàlla yërëm la xare la àjjana waaw di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu suñu waa kër mati seek maa ngi koy nuyu waaw sama jabari mag waaw di ko baax waaw Mati Seck billaahi su toogee mu doy su fóotee mu set yaa ngi koy xanaa moo lay toogal mais ah, toggal mbër yombut nag barki ne du ko mën a ceeb ah barki Bamba <laughs> su ma ñëwee boole nii la koy tegale billaahi hmm. barki yonent bi ndox mu sedd beeg yëpp hmm. waaw maanaam yéen mbër yi est-ce que euh, bokk ngeen ak ñun ñi nga xamante ne nii doonuñu ay mbër comme comme comme li ngeen di li ngeen di ndékkee maam yow sax xayma ndékki ci ci ci lan la war a toll man sama ndekki bariwul man cinq kilo mburu lay ndekkee bëriwul 5 <laughs> kilo mburu mburu bu ne kii laa si def rek petit pois 1000 francs <laughs> waaw ak ak 5 rek benn mburu bu ne ak mayonnaise 300 café gi moom cin laay teg rek di naan ba keroog muy kii. saa yi loolu bëriwul loolu bëriwul ndekki moom sa patron moo la koy jëndal. ndekki li si jàpp rek. ndekki ah. waaw. <laughs> saa su ndékki daa seer de sa ndékki daa ko ceeb la. waaw non gars bokkal benn natt boo xamante ne nii si laa ndékki. Hmm. natt bi waaw. dañuy def chaque jour lu waay am dugal léegi su ma xëyee ñëw jël. ndékki dem ndékki waaw. Hmm. borom ndékki li moom damay dem damay jël rek. gaa yi ñoo ñëw fay ñëw fay yi ñoo fay waaw. ah saa yu mbër de neex na añ bi noonu. añ bi waaw wala añ bi moom. añ moom bëri na 88 628 19 salaamaaleykum. allo allo ça va. ça va kooku. si lii laa bëggoon a dugg mooy rajo bi. waaw bisimilah yaa ngi ci biir kay. waaw dégg naa la. waaye fii la rawee tur weeg fooy woote. maa ngi woote Dakar Géejawaay. Dakar Géejawaay mbër ngi nii di la dégg. ah DBC. DBC nga. waaw Thiat kooku sama rakk la. dégg naa la. waaye doole bëggee bëri barke yonent bi. yaa ngi sant suñu Tuubaa bu baax. na xamu nag. waaye sant bu wér kay. waaw sànq bi may déglu dafa am kenn ku ma woo. waaw. daani waaw. daani ma nee ko mu yam. ah. <laughs> ma ne ko ñun ay malfaiteur lan malfaiteur. barke Sëñ Bamba ñu ragalul yooyu noonu de ragalul yoole. waaw waaw te malfaiteur kenn ko linjaar. waaw ma fi curuxu curuxu bi waaw jeex taax. amul ragal de. waaw. barke Sëñ Bamba. Eh, sa sa sa sa saay saay sa kan kan moo la woo kan moo la woo. ah. kan moo la woo. benn bu dëkk Mbacke. moo woo ni ma neel sa mag yi mu yam. léegi moom na na jaar ci rajo bi na jaar ci 88 628 bi. waaw bi su amee lu muy. ñu ma doon dugg dégg ma ne ko ñun ay malfaiteur lan. moom bu amee fit na jaar foofu. <laughs> ma ne ñun. waaw. ma ne ko ñun danoo tàng jër. dëgg la dañuy laxe. ndeysaan. sa sa ah? de déranger la soxla moom. waaw waaw déranger moom déranger nag ñun du ñu déranger lu leer naa ñu laa xay tegal nii. ah. waaw. ah baax de dina ñëw ci plateau yi bu neex yàlla te xam naa bu boobaa bu yeboo ngeen toog di ko dégg. Ah, fan la laaxu. moom xoolal rek. ah déedéet man kay yow laa koy laaj yow mi xam fi laaxu. ndax man xaw ma fu mu làqu. non moom xam na moo xam ak gaa mi ñoom ñëpp xam na ah. waaw. affaire yi daal Baol Média lay reere. bilaay jërëjëf promoteurs yi daal ñu ngi déglu instant yi waaw di bëggee suñu moor mi woote woon léegi kooku moom borom baax la moo tax yàlla xam na ko. Hmm. ma dem jënd crédit ñëw woote. aca waaw waxal mbër mi ngi lay dégg waaw. waaw waaw 88 628 19 05 88 628 19 05 sa waay la mu nga wootee ba euh, Ndakaaru dafa mel ne am nga ay fans de am na ku nekk si ligne bi 88 628 19 05 si man rek te rakkuma barki yonent bi mbër jël ko allo ah, kooku rëcc na jaaraatal ci 88 628 19 05 88 628 19 05 am na ku nekk si ligne bi mbër jël ko allo allo. 88 628 19 05 88 628 19 05. lu sax si moom. Cheikh Seydi Abou lu sax si moom. Alaaji Mansour si lu sax si moom. Alaaji Abdoul Aziz lu sax si moom. Alaaji Habib si lu sax si moom. gis nga Seydi Jamil lu sax si moom su ma ne rek saxoo lu baax di wax lu baax digle lu baax lu sax su ñoom di raw nga waaye raw la nga ñun ñu am Jamil te gëm ko ñëpp raw nañu ñun waa kër Seydi Jamil ñoo ànd ak Seydi Jamil ba mu bàyyi ñoog Mansour mu Seydi Jamil ñu ànd ak Mansour mu Seydi Jamil ba la mbër jël ko. waaw ah, allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñoo allo allo waaw déglu sa téléphone rek déglu sa téléphone. waaw jërëjëf ñu lay jaar dina dina jox sa wàccuwaay bu wér a wér. waaw kooku maxu maxula maxu la baafa bi tubaab seen maam Cheikh. barke ti bi borom Mbàkke Bawal. waaw noonu la demee nag bu jeexee rek jeex na. billaahi. waaw ñoo ngi ziare ñëpp di ziare yow mi nga xamante ni yaa waral plateau ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax di la nuyu. jërëjëf di la maa lay fay bu wér. di nuyu suñu rakk suñu xarit Ndiogu. waaw Bébé Jenga ah, ñu ngi koy ziare di ziare Modou Gueye mi mu àndal plateau bi. waaw waaw di ziar mbër Zenga bu Malika. billaahi. koo nga xam ne sama lépp la dafa baax ci ñun kenn la ci ñun. di champion bu mag. ñu ngi lay ziar amuñu fayam la ziar bi yëpp waa teen maam Cheikh baawuñu kenn. billaahi maam Thierno Ndiaye gaa yëpp daal su ma limee damay juum. jërëjëf baawuñu kenn daal. kontaan nañ ci yow di la wax ne nag góor tey moom daral nga naanaan boo xamante ni du ma ne mosoo dalal ku mel moom mais li ngay dalal ku mel ni moom bariwul. Hmm, jërëjëf ndax ñun ñoo ko yar. bu muy tuut tànk ba léegi nii muy wax yow kon ñun xam nañ joowu bu baax lamb nag moom nañ ko ci ñaanal suñu borom defal ko taw tawféex yoo xamante ni maanaam dana kawe njortam lool parce que lu mu yàgg bëgg la amin ñu bokk njóogu da daan sañse sax nga fekk ko mu toog daa bëgg bëri njóogu moo xam yore la lu mu mën di sol ak lu mu lu mu seer seer njóogu na ko kaay bëri loolu noonu noonu lay ñëw rek soo ko bëree moom dafa yàgg nekk ci moom te nit ki loo bëgg rek te gëm ko muy dëgg ci yow bu yàggee suñu borom fekk si ñu ko ci ñaanal bu baax suñu borom defal ko ci ndam lu kawe jërëjëf jërëjëf waaw di wax na nag mbëri Mbàkke yi Mbàkke ak li ko wër. Mhm. ñoom am nañ problème quoi ñoom. waaw. Ah. waaw. Mbaalu. ñoom ñëpp kenn am nañ problème seen i problème yi ngi doog a démarré. billaahi. xamuñu balaa avant tout dañuy ñaan rek yàlla licence bi génn ba pare. xamuñu ko sax barke yorenti bi. mais moom nañ ñoom nañu waat moom lu ñu waat mhm. billaahi. waaw. nga xam ne daal làmb ji am na gan moom loolu daa am am ci lu ma leen wax moom nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di nuyu maam Cheikh nekk yëpp bàyyiwuñ kenn suñu yaay yi fa nekk. mag ak ndaw bàyyiwuñ kenn ñu leen di jaare kulluhum. Mm-hmm. allo. allo waaw ñu ngi lay dégg. Ndiobo. waaw Matar. waa yow dara. barke Sëñ Fallu amul ragal de. yow amal jàmm ak xéwale sama kërit nag daa bëriwul quoi. ba léegi maa ngi tànn pour jël leen mais jël dafa jafe trop. billaahi. waa en tout cas daal bëgg nañ bu baax barki yàlla ñoo la gën a bëgg de kontaan nañ bu wér yéen tamit ay ndaanaan ngeen jàpp ngeen ci bu baax yàlla leen suñu borom taxaw dafa yokk doole ci bu baax amin te ngeen mën ren rek yàlla ngeen mën ko ëpp déwén incha allah amin amin jaa ngeen jëf waay bëgg waaw kooku maxu borom Mbàkke Bawal maxu maxu waaw maxu jagarta borom Mbàkke Bawal waaw moomu indi léegi mhm. waaw borom teeru maam Cheikh. di nuyu waa teeru maam Cheikh gépp mhm. waaw. waaw ma ko yóbbu yóbbu fu ne. billaahi su am na ku nekk si ligne bi jël ko. allo waaw. waaw si làmp Mbuub. maa ngi saa la waaw saa la si Ndiob Mbaye. waaw si Lamp Mbuub si Kurla. yaa ngi waaw naa leen. maa ngi lay ziar bu wér de. eh Baye Ba sunu mbër mi ñu ngi lay ziar de Baye ñu ngi lay de. barki yàlla fii la ëppee. waaw Baye Fall yëpp lay bëgg nag ñu doon bëgg gars yi jàppale la barki Serigne Touba yaa seen mbër Moussa bi. billaahi ma maa ngi nuyu di nuyu waa place bépp. bàyyi ma kenn ñëpp lay bëgg Moussa bi ñëpp la jàppale nga mu combat barki alxuraan karim ñëpp sa ginnaaw Baye Fall. jërëjëf jërëjëf. barki Serigne Touba kontaan naa baax di nuyu ñëpp. ñoom maa ngi koy Omar bàyyi Samba. waaw Lamine. waaw ñoo ngi lay ziar bu baax doon. wér waaw di ñaan di ñaan di ñaan émission bi yàlla nga ko yàgg a def. amiin amiin amiin amiin amiin di ñaan boo fi jógee yàlla ko bàyyi di di amin rang. amiin ndax xam naa xam naa sa doole mat na ko sa fit mat na comme ni ko si Mor Mbaye waxee léegi rek. amiin amiin waaw moom moom moom lu mu teg bëtam teg amu ko doo doo am jàmm. barke yonent bi nit ñi xam nañ xam nañ si dara. jërëjëf jërëjëf waaw. kontaan naa ñoo ngi ñaan kontaan naa ñoo ngi ñaan loo bëgg yàlla na ko yàlla defal. kontaan naa bu baax waaw ñun ñëpp bëgg bëgg ñoo Omar xam nga jox la waaw. Seydou Aliou Ndiob. waaw Omar maa lay ziar bu baax. yaa ngi am baax. sant bu wér kay. dina ñaanal yokk rek. amin amin amin amin ko xale léegi hmm. loolu dëgg la. waa Mbouté bi la ñaanal Koumba yi yokk rek. amin amin barke Serigne Touba amin amin waaw baax na waaw kon ma xaaral ma jox la allo Samba. Diop. waaw Samba ñoo ngi ñaanal li nga bëgg ci combat yaa xam yàlla la ko yàlla defal. amin amin amin ñoo ngi ñaan émission bi boo boo boo boo jugee ci émission bi bëree raasaloo ci bàcc si Touba. amin amin amin kontaan naa si yéen bu baax. 88 628 19 05 88 628 19 05 Ablaye Sarr taximaan maa ngi lay ziare bu baax jox la sa wàccuwaay mel na sa waa gox ñoo doon woote waa Mbusoobe. waaw waaw waaw sama waa place ñoo doon woote waaw maa ngi leen ziare ñëpp waaw di jëtal si nuyoo bi sin mbay Mbaye mhm. Fallou Thiam maa ngi koy nuyu bu baax mhm. Lamine mhm. Omar bàyyiwuma kenn Samba maa ngi ziare ñëpp Lamp Mbub waaw di nuyu waa Musoobe yëpp Cheikh naa médecin yi maa ngi koy nuyu bu baax waaw di ko baax ak soxna Kine waaw maa ngi nuy ñëpp di nuyuwaat suñu waa bu baax di nuyu sama yaay di ko gërëm di ko sant bu baax di ko gërëm. Mhm. lii lépp moom la. billaahi waaw di gërëm sama papa bu baax. Mhm. waaw di nuyu Mbacke sama grand. Mhm. waaw sa Maroc. waaw xam naa dina dugg léegi Siraat Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax sama taaw yaay. maa ngi koy nuyu jàpp sekkum suñu maa ngi koy bu baax Yacine. waaw borom Dakar maa ngi koy nuyu baax moom tamit sama mag la. di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn Moustapha maa ngi ko nuyu bu baax sama grand. waaw mu ngi Louga maa ngi koy nuyu bu baax di nuy waa Louga gépp ma kenn alaaji maa ngi koy nuyu bu baax mhm. waaw si Louga mhm. waaw di nuyu ñëpp dëgg la 88 628 19 05 88 628 19 05 képp ko xamante ne nii bëgg ngaa jokkoo mbër rek mën ngaa jaar ci 88 628 19 05 yéen a ngi si rajo Baol Média FM 88 point 5 nekk fii ci Mbacke Tableau Dia bi képp ku bëgg a participer ci émission bi mën ngaa jaar ci 88 628 19 05 mel ne am na mbokk ñu nekk si ligne bi salaamaaleykum. maaleykum mbër di waxal ak moom. waaw ah. sëñ bi ñu bu wér. Ah, formation création bu Mbusoobe. waaw. tur bi naka la. Tafa Sireen. Ah, sama doomu nday barki yonent bi maa lay ziare bu baax di la jox sa wàccuwaay billaahi sama doomu nday sama xarit waaw loolooy dëgg de émission bi nag dañ ñu ko yéex a yëg barki yonent bi bi moom nii ci suba sànq ko moom loolu moom nuñ mën a def dañ ci billaahi waaye la suñ doom sañoon ñëpp lañ ñëpp lañ koy wax billaahi loolooy dëgg de bër bu mag mi kontaan naa bu baax di la billaahi maa ngi nuyu di nuyu toos waaw waaw borom moo maa ngi nuyu maa ngi leen nuyu gaa yëpp mafia bépp maa ngi leen nuyu mafia curuxu curuxu waaw Fallou Diam waaw maa ngi leen nuyu yéen ñëpp barke Sëñ Bamba kontaan ñoom de waaw billaahi kontaan naa bu baax jërëjëf kontaan naa si waaw kooku Moustapha la Moustapha Téer. Moustapha waaw ngeen jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 Seydina Ousmane suran ñu ngi lay siyaare bu baax baax a baax ca déglu ba mu ngi ci rajo Baol Média FM mel ni am na mbokk mu nekk si ligne bi mbër jël ko. allo allo allo. Ndiogu Afia Codé Gueye. Codé maa lay siyaare bu wér. Codé dem na 88 628 19 05. 88 628 19 05 képp koo xamante ne nii bëgg ngaa participer ci émission bi bëgg a jokkoo ak sa mbër Ndiogou mbay euh, bébé Senga mi ngi fii ci studio bi mën ngaa jaar ci 88 628 19 05 Seydina Ousmane Sourang ñu ngi lay siyaare bu baax a baax joola sa wàccuwaay ñu ngi siyaare Tafa Thiam borom kurusu njalembaan yi nekk ca euh, gaar ba ñu ngi koy bëggee bu baax a baax Moustapha Basirou ñu ngi mi ngi lay siyaare di la jox sa wàccuwaay Euh, say waajur ndax ànd nañ ci làmb ji ngay def. waaw man lépp loo xamante ne ni maa ngi siy dugg rek te samay waajur ànd ànduñu si rek dama si génn waaw maa leen sant di leen gërëm ndax euh, mënoon naa bëgg làmb bëggalewul ma ko tamit ma fi ku dem tamit ginnaaw yàlla dogal na ba ànd nañ si man maa leen sant bu baax a leen gërëm waaw sama yaay daal moo xawoon a kii nii rek te waaw. te moom lu ma bëgg rek bëgg na ko waaw sama xarit la sama lépp la waaw Codé tamit maa ngi koy ziar baax Codé téyeer marché Mboussobé mm-hmm. waaw di di nuyu patron Fallou Fall maa ngi koy nuyu di nuyu gaa yëpp mm-hmm. bàyyi ma kenn Baye mbay maa ngi koy nuyu bu baax waaw di ko bëgg làmb moom tamit sama tons la maa ngi koy nuyu baax di nuyu soxnaam mm-hmm. maam Jaara Mbay waaw waaw di nuyu Fat Bintu di nuyu ñëpp mas nga dem ci ci ci làmb war a war comme saa comme que nee nga jël nga ay drapeau yu bari di bëri di bari di bëri ba war ak àgg final final bi yàqu maanaam làmb ju toj mas na laa dal wala mësulaa dal. non loolu mësuma dal man. Hmm. loolu mësuma dal. Hmm. waaw. mësulaa dal maanaam daal da ngay bëri ba kii te làmb ji du am benn problème. am benn problème. Hmm. waaw lépp lu ma dugg daal yàlla moom mu si jàppale. alhamdulilah yokku loolu am na solo kon mën ngeen a jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 am na mbokk mu nekk ci ligne bi mbër jël ko. allo allo allo. jaar naa leen sama gars yi. waaw dooli jaar bu wér. maa ngi. allo. allo. allo waaw ñu ngi lay dégg. dégg naa leen. mën ngaa déglu sa téléphone waaw. waaye maa ngi maa ngi maa ngi rafetlu émission bu baax a baax. waaw jërëjëf. yokkal yokkal yokkal yo kiyal bi li nga wax daa xaw a suufe quoi. mbër jege waaw tur bi naka la. Ndiobo man la Thier Baye sa doomu yaay. Thier doomu yaay Senga waaw. waaw Thier maa ngi lay ziar bu baax sama grand. non foofu gaan. waaw sant bu wér. affaire maa nga doon seeraan YouTube booba léegi mais dugg moo xawoon a jafe nag. wax nga dëgg wax nga dëgg liñ bay xaw a saturé. Modou maa lay ziare de Modou Gueye. <laughs> ceer la ceer la borom musóobe billaay gars yi dama leen gis rek sama xel daal barki Serigne Bamba mbër moo ma doon woo sax di ma tegal action yi gars wax nga dëgg billaay xel day fatt waaye xam nga ni duñ def lu la ump barki yonent bi naa naas naas naas moom yéen moom yéen lu ngeen def noonu la billaay yow la yow suñ commencé ñëw nañ si jàpp billaay yéen ngi si jàmm bu baax jërëjëf kontaan naa si baax grand bi grand waaw waaw nit nag nit dafa lëndëm quoi soo ko xamul rek xamoo ko mais mais booy boobu noonu. lu mu la wax lu ko raw moom si moom billaahi wallaahi. dëgg la. dëgg la nag nit moom soo ko xamul rek xamoo ko quoi. Mhm. mooy kooku boo fekkoon fu mu takkee ngem rek nga bàyyi mbir yi ku takk ngem fii nga bàyyi ko. dëgg la. loolu leer laa wax maa ngi bëggee gaa yëpp nag di bëggee Senga xam nga di bëggee ñoom Maxu. Mhm. di bëggee Grand Souleymane xam nga sunu grand ñun ñëpp bëggee Cheikh Sall bu baax baax baax suñu hmm. waaw di siyaare waa Mboussobe yëpp mbëru Mboussobe maa ngi leen di bëggee. Hmm. di la wax ne champion moo ngi déglu émission bi naa si kanam tuuti dina dugg neexul rek. waaw Senga moom da ñu ngi koy xaar fii moom. waaw waaw ñoo ngi rafetlu Modou Gueye. Modou waxal waaw. rëcc na mën ngeen def ni moom jaar ci 88 628 19 05. 88 628 19 05 Senga mu mag ñu ngi koy xaar ci émission bi ndax émission bi euh, daanaka mën naa ne ab émission la ndax euh, turandoom moo toog fii euh, nekkal ko fi ndeysaan te te te mate ko sëkk nag waaye tamit mbëri diiwaan bi yëpp ñu ngi leen di ñaanal am na ku nekk si ligne bi nga jox ñu ko mbër jël ko. alo alo allo maa leen siyaar yéen ñëpp. dolli siyaar bu baax. maa ngi leen jàmm ak tawfeex. tur bi naka la ak fooy wootee. Fallou Mbaye. Fallou Mbaye borom Touba Mousobé. waaw gis nga. borom li ñuy pax. waaw waaw waaw pax te ren. di dagg di wàcc. waaw gis nga de. mais tey damaa kontaan de bisu bisu bisu tey jii. barke Sëñ Baaba ci bisu yëpp la gën a bëgg barke yonent bi. billaay walaay taalaay xale nga te am nga jom te gëm nga sa ko quoi. barke yonent bi yow yaay may borom deer mais ñu ngi lay ñaanal li nga bëgg ci si làmb ji nii nga dégg ma la. amiin yàlla nga ko yàlla suñu borom defal yàlla nga jël roi des arènes dégg nga. amiin amiin amiin amiin. te xam naa ne fi nga teg sa tàng nii boo ko tegagul di nga ko jël. amiin amiin ñu bokk. ñu lay ñaanale bilaay damaa bëgg de war na seewul xale. bilaay yow yaay borom cooleeg mbalax yeeg ndee rek bëng bëng yi. déggal déggal ak doromaay barki yonent bi. gannaaw kontaan na ci yéen kontaan naa ci émission bi maa ngi sant ñëpp. jërëjëf jërëjëf kontaan nañu si bu baax ñëpp booba léegi maa ngi bëgg a dugg mais dugg nag moom kooku rëcc na ñu ngi koy siyaare bu baax 88 628 19 05 88 628 19 05 kooku daa mel sa xarit la. waaw sama doomu sama doomu nijaay la Fallou Mbaye. Hmm. waaw sama rakk patron la di ku baax. xanaa ab tëggkat la. rent bi ab tëggkat la waaw. Hmm. waaw moo may kii si aar bi yaa ma gën a xam. dëgg la xam nga man si laab mi rek laa nekk waaye yenn saa yi mu xëcc ma yaa ma gën a xam. yow kay yow xanaa xanaa da ngay tëgg. man ah maa ngi laal tuuti rek. yenn saa yi ah. ma jàpp jëmbe yenn saa ma jàpp tëngani waaw. Ah. yenn saa ma laal cool. <laughs> njabaan ba neex. waaw ndax damay doomi géwél nag. ndeysaan dëgg la saf ci sàpp. ndeysaan loolu wér na. kontaan nan bu baax a baax ci ñi nga xamante ne ni ñu ngi déglu émission bi euh, ci diwaanu Bawal ak li ko wër waaye tamit am na ñu nekk ba Ndakaaru dinu seetaan en ci YouTube bi waaye tamit am na ñu nekk ba bitim réew sa gars yi sa sa sa mbokk yi ak sa fans yi ñu ngi ba bitim réew di ñu seetaan en ci ci YouTube bi ak Facebook bi. BFM international ci ci ci ci Facebook bi waaye tamit bu dee YouTube bi da ngay def Baol Média officiel rek da nga nuy mën a seetaan bu baax a baax a baax ñi ngi siyaara baax a baax Seydina Ousmane Sourang ak waa teleem yëpp ñi ngi leen di bëggee bu baax a baax xel ba matin lépp fépp TV ñëpp maa leen di siyaare di jee Amzo maa ngi lay bëggee bu baax a baax di siyaare Fallou Yaali bu baax a baax a baax a baax ñu ngi siyaare ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp kontaan nañ bu baax a baax a baax ci déglu bi ngeen di déglu Abdoulaye Sarr ñu ngi lay siyaare baax sunu taximaan waaye Tafa Thiam ñu ngi lay siyaare baax a baax mbër ah euh, fi mu ne nii nag euh, léegi saison bi di jidee est-ce que yaa ngi ci entraînement yi fi mu nekk fi mu nekk nii. waaw ñun nag ñu ngi ci entraînement yi waaw waaw xëy na nag xaw nañoo gëj a entraîné nag waaw waaye suñ jógee fi incha allah rabi dinañ gën a takkaat jaaj yi waaw takkaat daal yi waaw dem si suuf si. Hmm. incha allah. waaw ah, kañ nga gëj a entraînement. waa waa koor gi rek. koor gan. koor gi. yow kon ata ngi ni entraîné woo. <laughs> man de saa mbër mi. loolu yàggul. ah non damaa nekkoon si ay xat-xat rek billaahi. teer bee la tënk. waaw non damaa nekkoon si ay xat-xat waaw ak yeneen. Ah. waaw. dëgg la ndeysaan. waaw suñu jugee fi incha allah moom soo ñu gisee dañuy xoolaat incha allah rabbi. Hmm, yaa ngi ci weñ yi wala ci suuf si. waaw maa ngi fépp. ah da nga koy jaxase. waaw maa ngi fépp di nuyu Tafa Cissé waaw borom Bawol fitness barki yonent bi. Hmm. nee na ñëwal ma inscrire la chaque weer ma fayal la waaw maa ngi koy bu baax. Hmm. waaw. mais demoo ndax da ngaa ragal ba ñi moo tax demoo. non du ragal de. Hmm. waa làmb bëre moo gën a metti ma bëre. ah bëri kat sa waay léegi moom sa waay minute la rek door na ko mu daanu teq na ko mu daanu. nii nan rek ngay dégg. loolu bëre paa yi la ay ñoom Balla Gaye ay ñoom Modou Lo gaa yooyu noonu ama seen ñun xaalis dañuy wut. Hmm. waaw ñun dañuy ñafe waaw yéen moom da ngeen ciy taq rek. waaw. Hmm. ñafe de. dëgg la. ñun wuti ñu lu nooy barke Sëñ Bàmba. Hmm. billaahi ragalum dara. ndeysaan. waaw lu ñëw baax na ñun xeer la. waaw dal si ñun rek yaa toj. waa mafia curuxu curuxu la ca des moom duma ci àgg maa leen di siyaara bu baax a baax ndax xam naa ci ñu bëree bëree bëri dama leen di romb chaque jour ci marché bi ah, ku ci mel ne ñoom Baye Bàcc ñoom euh, xam naa ci ñu bëri daal ñoom Cheikh baay Fall maa ngi leen di siyaare bu baax a baax. waaw Bamba ñoom Bamba ñoom Assane. Hmm, ñoom Baye Bàcc ñoom ñëpp maa leen di bëgg daal waa mafia bi maa leen di siyaare. waaye tamit ngeen gën a gëm seen bopp rek nekk ci li ngeen nekk teg ko ci yoon teg ci temps. xam nga ndax fu euh, euh, diwaan bu mel ne Santhia ak Mbusoobe dafa jegante waaye boo gisee lu mel ne Santhia ak Mbusoobe euh, ñu leen di ñu leen ñu leen di jiiñ ay booy yi danoo mën a taxawaal booy yi danoo bëgg histoire booy yi danoo nangam comme que yow porteur de voix nga te ñun ñi dañ lay déglu ñëpp a ngi toog di la bàyyi xel lan nga leen di yedde pour ñu mën a changé waat doxal doxalin. waaw booy damaa bëgg rek waaw ñu ñu fas jom quoi waaw dem liggéey dóori Hmm. waaw aduna amul solo quoi lii lépp ay jaar-jaar la rek hmm. waaw maa ngi leen di ñaanal daal yàlla yàlla yàlla gindi leen quoi hmm. waaw doolee leen dimbali waaw ay ndaw la nag waaw xamuñu dara waaw dëgg la yàlla na yàlla soppi incha allah rabbi non xam nga kenn nekkul ci lu bon sax waaye nag xam nga xale moom maanaam uh, ak am xelam day day day day xaw a maanaam boo toppee yenn yi rek uh, man nga kii quoi waaye nag comme que yow ñëpp a ngi lay déglu da leen di dàgg rek am na ku nekk si ligne bi sax mbër jël ko. ah moo ko mi allo. waaw. fooy. tur. waaw jàmm. baax. waaw damaa toog sànq dégg ñuy wax mafia ci loxo dama may président mafia ci loxo. wax nga dëgg wax nga dëgg. ñu siyaare baax ci kontaan ci émission bi. barke Sëñ Bamba. bëgg naa si yow de. li ngeen wax mafia ci loxo du moom mooy loolu la. kontaan naa si yow baax. waaw kooku bisimilah ñu ngi koy déglu. 88 628 19 05 88 628 19 05. ñu ngi xaar euh, fans euh, njoogu mbay ñu ngi xaar mafia bi yëpp ñu ngi bàyyi xel euh, waa Touba waa Mbusoobe ñëpp ñu ngi leen di xaar ci 88 628 19 05 lambi Bawol lay doon dinañ fi invité bépp mbër boo xamante ne ni yaa ngi ci dëkk bi ak lu wër dëkk bi incha allahu rabi dinañ la teg fii ci plateau seq ak yow laaj ak tontu waaye tamit say mbokk dugg say fans dugg ñu mën a yaatal lépp kaf la foo ak reetaan rek jubluwuñ ci dara ndax eh, Bawal Média dafa dafa yaatal te te bëgg na képp koo xamante ne nii eh, nekk nga ci diwaan bi rek ngay yëngu ci lu baax dina la wone waaye tamit dina la am na ku nekk ci ligne bi mbër jël ko. mbokk mi allo. maa ngi jaar bu baax. waaw fooy fooy noo tudd fooy woote. man man la Abdou maa ngi jaar bu baax di nuyu gars waa Abdou Dieye Abdou Dieye. di jaar gars ab liggéey ab liggéey bitig maa lay ziar bu baax billaahi yow yow nda nda ndaara nga ndaara nga si biir ndaara nga baal sol xadim gars yi la xamul rek ma ñun xam nan la billaahi jërëjëf yow moom wax dëgg yàlla moom ku la xamul moom sooy dégg na la parce que tañ nga tañ nga fu ne billaahi da ngeen a baax ndaara ndaara ni fi jaay daan daan baan baan lépp yàlla yàlla wa yàlla wàcce barke Sëñ Bamba gars gars yëpp ñoo lay bëgg nag baal sol xadim xam nga ma ci yàq ge tabi si quoi wax nga dëgg wax nga dëgg maa leen nuyu bu wér di nuyu sama waa koñ waaw waaw di nuyu waa kër gépp di si jiital bàyyi ba jéy di nuyu taal di la di rek. billaahi kontaan naa bu baax. amoon ragal barke billaahi. ndam rek billaahi. billaahi kontaan naa si waaw. waa gars yi bëggee de. waa doole bëggee lu bëri. waa jox ma sa waay jooju maam Mor. maam Mor maa lay bu baax. waa dafa leer jox ma waaw jëlal mbokk mi. Euh, allo Mamor. salaamaaleykum. maaleykum salaam. baax a baax. delloo ziar Mamor la. alhamdulilah. Ah, kii de as ndongo li war nekkoon ci ah numéro am. waaw dama ko doon woo dagg léegi li ma jeex. waaw baal mu jël waaw baal mu jël la ci jox la ko. bul coupé dégg nga. waaw d'accord waaw allah rabbi. waaw. ñi ngi siyaare ñi nga xamante ne ni ñooy déglu émission làmb ji. ñu ngi leen di béggee bu baax a baax a baax a baax ndax euh, mafia bi yëpp ñu ngi leen di siyaare di leen jox seen wàccuwaay waaye tamit ñu ngi leen di xaar ci numéro bi ba léegi 88 628 19 05 waa mafia ci loxu ci loxu ñu ngi leen di béggee di leen jox seen wàccuwaay ñu ngi siyaare waa marché sanc Daaru Salaam yëpp bàyyi woon kenn di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ak tawfeex di siyaare jaaykatu reer yi jaaykatu kafe yi mbay la maa ngi lay bégg bu baax jaar leen ci 88 628 19 05 88 628 19 05 am na mbokk mu nekk ci ligne bi. mbër jël ko mbër. kooku rëcc na 88 628 19 05 88 628 19 05 88 628 19 05 képp koo xamante ne nii bëgg nga participer ci émission bi nga xamante ne nii mooy làmbi Bawol di am fii ci rajo Bawol Média FM. 88 628 19 05 mbokk salaamaaleykum. allo maaleykum salaam jàmbaar. waaw. siyaar la jox la sa wàccuwaay Modou. mbër ko waaw. naka mission bi baale ba taw feex. kooku sama toomaa ah, la Zé. dafa leer bébé. barke sëñ Bamba kontaan naa de. wala sëriñ Bamba fi la waree barke alxuraan. dëgg naa lu bëri billaahi. yaa mën yaa ëpp doole bu ragal dara taat na. jërëjëf. yow maa sa ginnaaw billaahi. yemoo si wax ko rek billaay si nga dëgg Senga ñu ngi lay déglu allo allo Senga rëcc na jaaraatal ci 88 628 19 05 88 628 19 05 Senga boo duggaatee rek ngay déglu ci sa téléphone. Euh, ndax euh, affaire bi day rawante comme que yow YouTube bi nga koy seetaan jaaraatal ci 88 628 19 05 am na ku nekk ci ligne bi mbër ko. allo. waaw mbokk mi allo. waaw di jégaluwaat dafa dagg daa mel de. si waaw wax nga dëgg Zé. maa ngeen jaamu bi ngeen naa lu bëri dof bi. station bi jaar na yoon macha allah kàddu yi am na solo bu baax a baax. jërëjëf. ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax xam nga di siyaare waa plateau bi rawatina kooku la waaw suñu gànnaaw la suñu lépp la boo ko dëkkuwaay tamit xam nga. Mm-hmm. waxal ak bër waaw. waaw maa lay dégg. Alam Ndiaye nee na kuy waale yàlla te dëkk tëb. waaw jërëjëf. sànq damaa déglu xam nga sama géwél dugub Alam Ndiaye ne ku baax a baax. kooku mm-hmm. Tambour Major lu tëggul baaxul ak seen baam. ñëpp nag xam nga waa Thiel man Thiam bu soobee raanaa ba ñetti poto xam nga ara sëñ Fallou. Mm-hmm. waa Santhie ara Narga. jox ñëpp seen wàccuwaay mm. di wax ne ñun amuñu lu dul suñu parce que Serigne Bamba ndax soo xoolee mën nañu ne làmb léegi mm-hmm. soo xoolee ku ne da ngay jël yóbbu sa koñ te man sama koñ rek làmb aw ma leneen. ndeysaan. ma jéggaane lépp lu ma bëgg sama koñ am na ko parce que Serigne Bamba. Mm-hmm. su dee nit ku baax am na sama koñ. Mm-hmm. su dee nit ku may xelal du ma. dëgg la su am na fa su nekkee tamit. lépp looy waree mu ngi mbu leen wax ne nag xam nga évidemment ci jara invité champion bébé bébé Zenga dafa xale boo xam ne xale bu yaru xale bu nangu ndigal baax sëñ Bamba li mu waroon nag moo nekk parce que man soo sama samay rak lépp lu ñu nangu rek maa ngi ci loolu parce que man aw ma dul ñoom ñoom laay tiitaroo di leen safoo mm-hmm. rawatina waa xamam ma yaalu bés sax Zenga mm-hmm. mm-hmm. bi ak waa Zenga famille ak waa mokkal bi waa jëkkati fitna bi su fekkee ñëpp ma ma fi yaay mënu ma koo lim soo fi nekkee di lim rek bàyyi xam nga. lépp lu ma nekk waa mais dañuy nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di leen wax ne dañoo kontaan ci émission bi. Mm-hmm. waaw parce que boo xoolee ñu invité waaw koo xamante ni dafa la tuddee boppam mu ngi nekk sa idool tamit loolu dafa neex tamit ba woote wax leen carrément kooku mooy mm-hmm. waaw li ko ñëpp seede rek laay wax di dëgg la parce que xale bu yaru la ko ñëpp wax moo nekk si moom. Mm-hmm. waaw di nuyu Souleymane Diouf nag bu baax a baax. Mm-hmm. ak waa Paris waa Bayern waa Chelsea. Mm-hmm. Mm-hmm. waa Daara jeeg ñëpp. yaa ma gën a uh-huh. mais loolu mën a wax ci loolu mën a wax ci kii nga xamante ne nii dalay tiitaroo te uh, sa idole la yow lay roy nee na yaa ko dugal ci làmb wax fi wax ju rafet émission yi ba mu tàmbalee ba léegi sa tur rek lay cité loolu mën a wax ci moom ak auditeurs yi ak fans yi lay déglu. waaw Modou kooku li ma mën a wax si moom bëri na billaahi su ma ko dee wax sax du ma jeexal mais dama la ci limal leen rek lu ndaw lu bëriwul. Mhm. nit ku baax la nit ku yaru la nit ku am respect ci doomu aadama la. moo ëpp solo. waaw nit ku bëgg lu muy def la tamit te aussi lim jël ba. Mhm. dëgg la. moo ngi sonné si ñoom. <laughs> allo. waaw allo waaw. waaw bi naa def. sant yàlla bu wér. man la Mat Seck. aca jël ko ma waaw Mati maa lay maa bu baax. di nuyu Ndiogu Mbaye moom bu baax. waaw maa lay fay. sama sama jëkkër sama rak. barke yonent bi. ko ziare bu baax. billaahi ñoo lay fay lu bari. kumba yal na ko fa yàlla amin amin borom ñun moom ragaluñu kenn. barke sëñ Bamba borom supp kànja ak dama daa. bu ñu jox rek sëñ Touba defar lépp. billaahi. jàmbaar la ci de. soo soo sax mu neex barke yonent bi. <laughs> nee ko man damaa baax yaru barki yonent bi kontaan baax di nuy sama doom yooyu seen xaadim maa ngi koy nuyu baax seen xaadim ak Cheikh mbaak <laughs> waaw seen xaadim a ngi nii. waaw di nuyu Asumbaay sama jabar sama turandoo yaay. ak soxna sama vacancière waaw seen xaadim. allo seen xaadim. allo. allo maa lay dégg seen leen rajo bi tuuti rek. waaw. maa ngi si jàmm baax seen xaadim. bu baax. waaw ñoo la gën a kontaan. allo. allo. Ndiogu Mbaye. waaw kooku la jàpp sekk mu Sëriñ Salim waaw maa ngi baax la jox sa wàccuwaay kontaan naa bu baax de. ñoo la gën a kontaan. barki yéen bi. ndeysaan jàpp rëcc na waa kër gi rëcc nañ waaye 88 la 628 19 05. 88 628 19 05 mais émission bi nga def ko say mbokk woote am na ku nekk si ligne bi mbër jël ko. mbokk mi alo allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam tur bi naka la ak fooy wootee. Gora Gueye Xasaayit Mbusoobe. suñu Gora Gueye. ñoo lay ziare bu baax. suñu Gora Gueye mu suñu Cheikh Awa Balla. waa dëgg la de El Hadj Ndiogou maa ngi lay bu baax. doon ziare bu wér. yaram boobu la dalal ne ko dalal na ko baax. barki yonent bi kontaan naa de. dalal na koo xam ne nii barki Serigne Touba yitte ñi rek mooy yitteem. dëgg naa de. alalam du ko boole kenn dalal na koo xam ne nii waa Mbousoo ba waxuma ne Mbousoo ba àdduna sépp mën na noo wax ci Ndiogou Mbaye ngir ak baaxam ak yaram respecté doomu aadama barki Serigne Touba. dëgg la. noonu moom euh, sëñ bi li la ñaanal li la ñaanal Ndiogou Mbaye gudd fan ak wér. incha allah bu neex yàlla bu ko amee liñ bëgg lépp ci moom dana am. Mm-hmm. amin amin boobu ba léegi waa Mbusoo bi marché bi ñëpp ngi toog di teewlu ngir di booxante ci liñ bi ngir bëgg a dugg Cheikhouna Cissé mi ngi mi ngi lay ziare. maa ngi koy fay bu wér Cheikhouna Cissé. Cheikhouna maa ngi lay ziare bu baax. waaw gaa yi ñoom Baye Serigne ah ñoom Ali. ñoom musa Gose. ñoom Dan gars yëpp a ngi. ñoom laay neex bu nekk di booxante ci liñ bi. maa leen nuyu yëpp di nuy waa Place Tafa Ngop waaw ngir bëgg a dugg waaye place Tapha Ngom ñëpp ngi nii marché bi tey foo dugg sa émission bi rek. la la la la ziare Gora Téer Cheikh maa ngi koy ziar bu baax. Gora Diop ñoom Cheikh ñoom ñëpp fi ne bi day ri rek maanaam Ndiogu Mbaye Ndiogu Mbaye gars yi yëpp a ngi teewlu. billaay kontaan naa baax Baye Serigne Sall maa ngi koy ziare xasida. bi bi billaay yow da ngaa baax Ndiogu Ibrahima Mbaye Baye Fall maa ngi koy bu baax. yow da baax ñu ngi ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa suñu borom guddal soo fan lépp loo bëgg sa métier wala aar bi nga nekk yàlla la ko yàlla matale li waa ji wax léegi rek bu bi génn fii moom lu lépp fi am wax dëgg yàlla lépp nag bu ñu ko waxee lu baax la muy artiste boo boo boo kii am na fi yëpp fi am mais na nag jeune mbër yi nga xam ne ay jàmbaar lañu jërëjëf jërëjëf kon da leen di ñaanal rek maanaam li ñu nekk suñ borom leen ci defal ay ndam yu kawe daal amiin amiin amiin njóogu moom lu ñu ko ñaanal doyut jërëjëf ndeysaan mbokk ma rëcc na def leen ni moom jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 Ndiogu looy wax fans yi ndax am na ku nekk si ligne bi njogu jël ko. mbokk mi alo alo allo. waaw Ndiogu Mbaye maa ngi ziar bu wér kooku la suñu xaarib. waaw man la xaarib kan de. suñu xaarib kan maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi ziar bu baax. waa di ziare waa kër gépp waaw ñu billaahi kontaan naa si yéen de. na nga tëb yaa ngi si jàmm bu baax. sant suñu tubaab wér. waaw ñu moom. allo. waaw Ndiogou Mbaye. waaw sëñ la. sëñ Malick sama xarit sama doomu ndey. yaa ngi jàmm. Soy Mbub. waaw loolu de am na. doomu ndey Talla Mourad maa ngi lay ziar bu baax. waaw damaa dugg ba sonn mënu maa dugg nag. billaahi bëgg naa si de. yaa ngi jàmm baax. billaay xam naa yéene ji de bark yonent bi. ah ñu ngi dañoo kontaan yàlla. barke suñu baax maa leen gën a bëgg. boobu ba léegi ñu ngi bëgg a dugg mu ñëw leen gën a bëgg. waaw di la ñaan ci kaw ci kanam. jërëjëf jërëjëf. waaw. jërëjëf aw salaam. yaa ah, Penda. maa ngi lay bu baax.

waaw ah, kay jërëjëf maa ngi nuyu waa koñ bépp. kër gépp di nuyu maam jaara boobu ak Rama. maa ngi lay nuyu bu baax Xaadim léegi nii moom nee eh, eh. waaw. <laughs> nee nañu waxaaleel ko. Xaadim waaw nee moom bu baax. <laughs> di kontaan si waaw maam jaara maam jaara dama jox allo maam Diarra. allo. sama rakk sama xarit. allo waa Ndiogu. maa ngi lay bu baax. walaay ñu ngi delloo ziar. kontaan naa si yéen de barke yonent bi. bilaay ñoo la gën a kontaan. bilaay am da ngay sama rakk ju baax. ah euh, macha allah ndax dangaa nekk si koñ bi rek baax. bilaay. bay bëgg a dee. yéen ma ko ji de barke yonent bi. def ñëpp cër. ñëpp. billaay di nuyu waa Ngéwal nga. waaw merci. nday sekk nday mbay maam jaara maa leen nuyu ñëpp. waaw maa la raw kooku mu doon. allo. ça va. ça va la Rama. man maam jaara. maam jaara ça yaa ngi ci jàmm. yaa ngi ci kontaan nañ ci yéen bu baax de. ah. ma ne ngi leen wax ni kontaan bu baax bëgg nañ ci yéen. ñoo la gën a kontaan ñoo la gën a bég tamit. billaahi nit amul lu dëkkandoo. émission bi neex na. billaahi. waaw baax na merci. jërëjëf jërëjëf. ok kontaan kontaan nañu. ñoo la gën a kontaan. quatre-vingt-huit six cent vingt-huit dix-neuf zéro quatre-vingt-huit six cent vingt-huit dix-neuf zéro cinq Ndiogou daa ma ne ñooñu sa waa kër lan. waaw ñooñ sama waa koñ leen maa leen di nuyu bu baax. Mhm. waaw di leen sant bu baax di leen gërëm. Mhm. waaw di leen wax ni bëgg naa si ñoom bu baax billaahi mhm. dañoo baax rek. billaahi dañoo baax di nuyu waa Ngiwal gépp. bàyyi ma kenn di nuyu borom kër gi ga mu Muudu Mbay maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu meer Ndeye Seck. waaw di nuyu képp ku dugg rek ak ku duggul maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp leen jox seen wàccuwaay. daa mel ne sa waa koñ jox nga leen cër de war nga leen yarute gu mat sëkk ndax wane na ko tey. waaw baax rek. barke yonent bi ñoom ñoo baax rek. Mhm. waaw. la. ndax ku baax moom lu baax rek ngay gis. Mhm, dëgg la waaw. ñoom ñoo baax rek kontaan naa si ñoom bu baax di nuyu waa Mbusoo be gépp di nuyu waa Teelu Maam mhm. fa dul foofu. waaw. waaw Ségé yi maa ngi koy nuyu. Ségé yi sama doomu nday sama xarit. maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Papa Talla. Papa Talla di ko baax si ñun Papa Talla maa ngi koy nuyu baax ak Papa am na ku nekk ci di nuyu waa kër gépp bàyyiwuma kenn. jëlal ki ne si ligne bi mbër. mbokk mi alo di nuyu wës dollar allo. rëcc na 88 628 19 05 88 628 19 05 rajo Bawol Média FM yéen a ngi ci émission lambi Bawol di am fii ci Bawol Média FM di doon chaque dimanche incha allahu rabbi euh, ñu dalal fi tey Ndiogou Mbaye. Euh, ñu gën ko xam ci bébé Senga nekk fële ca bi waaye tamit mu def fii ci rajo Baol Média FM Mbacke tabla caa bi 88 point waaye képp koo xamante ni bëgg nga participer ci émission bi rek jaaral ci 88 628 19 05 88 628 19 05 Ndiogou Mbaye làmb ji léegi léegi léegi mu tijji. Euh, te nee nga euh, gëj ngaa entraînement ba léegi maa ngi ci entraînement yi génn guma ci euh, te am na mbër moo soxla fii ci Mbàkke siite nga turam te promoteur yi dégg nañ la te moom it tamit dégg na la ndax wo woona say mbokk ba tëkku la lan lan ngay wax si loolu noonu. waaw man damaa bëggoon mu woote si rajo bi ma waaw. Hmm. bala maa gënoon a xam ne li muy woote mu ngi si moom mu woote si rajo bi na woote. waaw mën naa jaar ci 88 628. 19 05 Dérangé yaa say mbokk woote leen. 88 628 19 05. man mën nañoo jaar foofu noonu pour pour mën a dégganteeg yow euh, ngeen def seen première signature fii rek. waaw lépp a mën a nekk. Hmm. moom na dugg rek. waaw ku dugg baax na na ay mbokkam dugg rek. waaw na ay jegeñaaleem dugg. Hmm. waaw ku dugg rek baax na. Hmm. waaw di nuyu waa Mbacke gépp waaw. di leen nuyu bu baax di nuyu waa Daaru Salaam hmm. waa Sileye Kane maa leen di nuyu di nuyu teenu maam Cheikh gépp bàyyiwuma kenn. Hmm. Mbusoobe marché bi maa leen nuyu di kontaan si ñoom waa marché Ocass maa leen nuyu waaw dakaar ñi dugg ak ñi duggut yëpp maa ngi leen di nuyu sëñ Moodu. Hmm. waaw Taaliba Bamba maa ngi koy nuyu bu baax naar rakab maa nga nuyu bu baax. waaw di nuyu Modou Lo waaw moo moo ma jox daal yi ma sol. waaw doomu nday Fallou Thiam maa ngi koy nuyu bu baax. Mm-hmm. waaw mu ngi kolobaan ci leen. waaw maa ngi koy nuyu bu baax. Mm-hmm. waaw di nuyu waa euh, Mathia Ocass gépp su su su mooyee ki nga xamante ne nii mooy sa idole muy euh, euh, Bébé Senga muy borom Mbusoobe làmb ji ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ca kaw maanaam ñu féete Ndakaaru di bëri arène est-ce que am nga ci ka nga xamante ne nii moom ngay suivre moom nga bëgg nga xamante ne nii boo demoon ba àgg foofa noonu sax buñ la ko joxoon ak ay millions yu bëri sax. doo bëreek moom ndax am na. waaw am na waaw. Hmm, kum doon. Balla Gaye. Balla danga mhm. koo bëgg. Balla Gaye waaw. Balla Gaye dama ko yàgg bëgg Balla Gaye billaahi. Hmm. waaw di mbër mu am jom Balla Gaye même ku ko supporté wul sax bëgg nga ko. Hmm. waaw wax jee fi nekk nii rek lim def si làmb kenn defu ko si Balla Gaye. waaw loolu na ko ñëpp nangu lim def si làmb amul benn mbër bu ko si def. waaw mbër bu ne nag def koy ay jaloore si làmb ay mudloo ama seen ñoom ñëpp ay champion lan mhm. waaw waaye Balla Gaye dafa def si làmb lu kenn deful mhm. waaw daan fi ko kenn daanul ëppale fi ay victoire mhm. waaw 2005 la dugg si làmb waaw xoolal fi mu toll nii waaw Balla waaye am na komba moom ak Boy Niang comme que yow ñitu làmb nga te euh, da ngay suivre làmb soo nu mënoon a defal benn jàngat bu ndaw rek ci ci ci kii boobu noonu bu bu gàtt boo xamante ne diggante Balla ak Boy ñaa nga xamante ñiy déglu ak ñiy seetaan ñi xam làmb te yow tamit mbër nga lan nga nu mën a wax ci diggante Balla Gaye ak Boy ñaa ndax làmb ci soreetut. Balla képp kuy takk ngeem moo la man ba ci Boy Niang moom waaw Boy ñaar ma ko dépassé moom. loolu Ama Baldé sax wax na ko Ama Baldé taxaw ne wax na ko. Mhm. man maa gën a tuut si ñi ko wax. Balla képp kuy takk ngem man Balla Gaye fekk bëriwul ba daanu rek jàpp ma ni kii ma mën mën nga ko daan Balla ba si ëmma seen képp kuy takk ngem bu mënoo ko Balla hmm. di champion bu mag di am fit ñemee hmm. waaw di ñaan yàlla mu gën ko kartanal làmb ji mu soobu yàlla may ko si ak Sa Thiès hmm. waaw diggante moom rek Reug coow li bëri na trop nag ku di wax di sabaru waaye Reug Reug du benn dërëb waaw hmm. coolee fi nekk rek. Hmm. te lu si kanam rawati bët. yow daal waa Kër Balla Gaye nga waxtu bi mu ngi xëccu jëm ci jeex euh, auditeur bu nu fi mën a dab rek si 88 628 19 05 ndax 5 minutes moo ñu dese 88 628 19 05 88 628 19 05 rajo Bawol Média FM euh, ki leen di présenter émission bi di Modou Bale dëkk fële ca Santhi Darou Salaam doon taalibeeb Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Massamba ma koy ñaanal baax Serigne Sidi Mbacke. yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te mu ànd ak wér gu yaram di ñaanal taalibe yi ñu ànd ak wér yaram sama nijaay Papa Ndiaye maa ngi koy siyaare di ko ñaanal gudd fan ak wér yaram sama mag Mbacke Diagne maa ngi lay siyaare di la ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ak sa soxna Asu Jabaay mbër looy tàggatoo ak fans yi ak ñi nga xamante ne ni ñoo lay déglu ndax émission bi mu ngi xëccu jëm ci jeex lan ngay wax say fans ak ak lan nga leen di jox di daje pour ñu mën a waajal combat sa kanam. ginnaaw ba ma santee yàlla wat julliwaat Seydina Mohamed di sant sama yaay bu baax di sant sama pàppa waaw di sant sama sëriñ sëriñ Seex Kan waaw bu Daaru Xuddoos di wax nit kontaan naa bu baax kontaan naa si ku dugg ak ci ku duggul kontaan naa si ñëpp awma seen fay billaahi mënaluma sama bopp dara billaahi lii yëpp lii yéen yëpp ñoom la fan si la barke Sëñ Bàmba ak sama grand yi si Mor Mbaye maa ngi koy nuyuwaat bu baax sama patron sama xarit maa ngi koy nuyuwaat bu baax. Mhm. di nuyuwaat waa place bépp di nuyu mbusoobe gépp aw ma seen fay. billaahi man aw ma lu mbusoobe barki mhm. ñu wax ñii yëpp si ñoom la nekk. Mhm. wallaahi amee problème ku si ñëw waxal ko billaahi nga faj ko barki Seydina Mohamed. dëgg la waaw maa leen ñëpp leen di sama yaay maa koy nuyuwaat bu baax waaw lépp moom la maa ngi koy nuyu bu baax. Hmm. waaw di nuyuwaat waa kër gépp ma kenn. Hmm. waaw. dëgg la kontaanoon bu baax a baax a baax si njoogu mbay waaye tamit sa waaj ji dañ koy tëjjil micro bi moom it tamit mu nuyoo euh, seen euh, nan sax. Modou Gueye Modou Gueye borom bu soobee nga nuyu fans yi ak jagasil micro bi nga nuyu waa Mbusoobe nuyu euh, say mbokk ak say xarit ak sa waa yi nga xam ne moom nga gunge. salaamaaleykum maa leen di yéen ñëpp eh, yéen yéen a baax rek di ziare sama xarit sama doom nday eh, Kara di ziare tamit coogu paay mii hmm. bébé Seka hmm. tey dafa yaru hmm. am ci man yëg-yëg wéy ñu ànd ñëw fi man ak moom ñu bokk lépp bokk naan benn jour man ak moom bu ñu takk ngemb dem bëri ji jël fii oto te bëre ji hmm. xëy na yàlla may soppi nit hmm. mais suma bëgg-bëgg la ak sama gëm-gëm hmm. di siyaare Matar moom mi ñu indi fii fay ñu ko benn dërëm dañ ko waree mu yëgal ñëwal kon kii dafa yaru ba pare li def da ko gëm gëm na ko trop ñu ko ci jàppale lu mu wootee suba ba ngoon ñu ngi fa mm-hmm. man ak moom mm-hmm. sama rakk la xam na fi mu teg tànkam mm-hmm. waaw di siyaare tamit Zenga ak Serigne Diop wus dollar fàttewuñ kenn làmp borom xew wi ñu ngi bëgg daal maanaam ñëpp ku ne si tur ak sant ñi maanaam xew day fàtt ñin war tudd ñëpp jóg leen si siyaare di leen dellu seen wàccuwaay ñëpp oui Euh, boo amee loo koy dolli ndax sa xarit la te xamante ngeen ak euh, làmb fi mu toll am nga loo koy ñaax loo xam maam loo koy dolli ci ci ci fi mu war a teg tànkam ak yoon wi mu jëm. nice loolu moom waaw mu ngi si moom tamit li ma koy encouragé bu mu ragal dara bu mu tiit dara fu mu jëm ñoo koy gunge lépp lu mu def am na mbooloo ba mat sëkk. Mm-hmm. kon bu mu tiit. topp ay entraînement gëm boppam gën a gëm boppam sax laay wax. Mhm. parce que gëm na boppam. Mhm. waaw loolu laa koy doole. Mhm. mu gën a gëm boppam daal. jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax euh, ñi nga xamante ne nii ñoo doon teewlu émission euh, Lambe Baol di am fii ci rajo Baol Média FM Mbacke tabla caabi xàll wa dëgmal dëkk bu sell ba di Touba ñi ngi siyaare képp koo xamante ne nii yaa ngi jëloon sa rajo. teg ko damm fa sa onde di déglu ñi takkoon seeni écouteur ñu ngi leen di siyaare ñu ngi siyaare di ñaanal ñi nga xamante ne ni ñoo tëdd ci lalu hôpital yi te ñu feebar yàlla yëkkati leen ba nu dellu seen ay kër ñi nga xamante ne nii tamit buur da leen a ngëb ba caabi féete leen ginnaaw ñoom itamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla génne leen di siyaare police bu Mbàkke di siyaare gendarmerie bu Mbàkke waaye tamit bu Tuuba ak sapeur pompier bu Tuuba borom Mbàkke Tuubaa yi borom Jakarta borom sareetu mbaam yi borom sareetu fas yi ñëpp ñu ngi leen di bu baax rawatina it tamit taximaan yi ñu ngi bëgg ñëpp di siyaar ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp kon mbër eh, yan kàddu ngay tëjee ñu joxante dig daje bu beneen yoon incha allah. waaw xel day fàtt Bada maa ngi koy siyaare bu baax Bada Jaxate waaw maa ngi koy siyaare bu baax Baye Fall bi di siyaare Mor Kenkaayre Mor Diop maa ngi leen di siyaare bu baax. di ziare ñëpp xel daal day fàttu billaahi su ma sañoon ñëpp laay tudd seen tur barke mm. Seydunaa Muhammad mm-hmm. waaw képp ku ma tudd rekk waaw maa la koy jéggalu waaw di ziare jibi Moussa Mbaye maa ngi koy ziare bu baax Ibrahima Ndiaye mm-hmm. bàyyi ma kenn di ziare sama koñ ñëpp waaw waaw Mboussobé teenu maam Cheikh forage bi bàyyi ma kenn maa ngi ziare ñëpp fii ba Daaru Salaam Kajoor ñu ngi déglu émission bi mm-hmm. waaw Daaru Salaam Kajoor fii ba Daaru Salaam Kajoor ñu ngi déglu émission bi waa Sile Kane hmm. waaw waa Njaxate Saer hmm. bàyyiwuma kenn waa Touba Kane hmm. waaw kontaan naa si ñëpp waaw di jox dig daje ci yeneen façon rek waaw ba ba incha allah rabbi incha rabbi jërëjëf euh, Ndiogou Mbaye kontaan nañ bu baax a baax waaye tamit jërëjëf auditeur auditrice su Média FM yéen ñi nga xamante ne nii yéen a doon déglu émission lamb ji di am fii ci rajo Baol Média FM di am chaque dimanche 11h 13h incha allahu rabbi kon yàlla nañu yàlla yóbbu ci semaine bii di ñëw ak jàmm salaam gàmmu gi nga xamante ne nii tamit moom lañ dëgmal yàlla nañu ci yàlla yóbbook jàmm. ñu fekkee ko te tal ko màggal gi nga xamante ne nii moom lañ génn ni tamit yàlla nañ ko fekkee ay déwén yu bëree bëree bëree bëree bëree bëri yàlla nañu yàlla gën a def ay dëgg dëgg dëgg dëgg taalibey Serigne Bamba taalibey Serigne Touba ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi ñaanal ki nga xamante ne nii moo ñu toogaloon ci machine bi muy Serigne Moustapha Basirou ñi ngi yàlla na yàlla guddal saw fan wéral say cër yàlla na la yàlla defal jàmm ak tawféex fan sa club Moustapha Basirou ñi ngi maa ngi siyaar ñëpp maa ngi bëgg ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak di siyaare Baye Daam Kebe Daam Saparal Fallu Sénégal ak kul ku nekk ci kër ga rek maa ngi lay bëgg di la ñaanal jàmm ak seydna Seydina Ousmane Sourang Oustaz Diagne Faye Baye Cheikh Gueye Ridial bëgg Fallu eh, Khoudia Warxa Fall maa ngi siyaar ñëpp yande ko du séeréer bi maa ngi bëgg ñëpp sunu directeur di Diop Thiat maa ngi lay siyaar baax di la ñaanal jàmm ak tawfeex Baol Média FM yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla yóbbu ca kaw a kaw a kaw jërëjëf jërëjëf képp ku doon déglu émission bi rek kontaan nan jërëjëf ba samedi jàmm incha allah rabbi ci beneen émission jërëjëfati yéen waa Baol Média FM jërëjëf. mbër mu ndaw mu ma tollool ya xam ak baax mbaate mbër mu mag mu ma tollool